asalaamaaleykum euh, kontante ak mbégte la ñuy am euh, tous les samedis nekk fii ak yéen euh, ci seen émission c'est-à-dire c'est-à-dire nag tey dafa am le plaisir et l'honneur de recevoir le marabout Serigne Bara Doli Mbacké mi nga xam ne moom HCT la nekk ba pare nekk aussi membre de l'APR Euh, ensuite, en deuxième partie, on reçoit Monsieur Amadou Sennion, expert en décentralisation. defe naa ni xam naa ni c'est un programme assez alléchant la soxna na nga def. maa ngi fi alhamdulilah soxna Fabienne maa ngi nuyu. di nuyu euh, sëñ Modou. Euh, mhm. di ko jaajëfal ci euh, liggéeyam je pense que yàgg nañ ko tuwaayante ci notamment jamono yi ndoonay mag ñi mu nekk liggéey bu am solo di nuyu bu baax a baax les téléspectateurs de la 2STV di wax ni c'est un plaisir de les retrouver comme tous les samedis dans C'est-à-dire. Mhm. sëriñ bi maa ngi nuyu. Euh, di la jox sa wàccuwaay euh, di la yëkkati daal fa mu nit waree yëkkati nit euh, di la am te nga xam ne ne am naa cofeel bu bëri si yow am naa respect bu bëri boo xamante ne saa yi suñu gisantee dama koy ndax maak yow kat presque mën naa ne ay mbokk lañu ay xarit lañu yàgg nañu di dem doxi comme lii laa sana doon wax kii di dooleel doolewu mag ñi ba nga xamante ne dañu tawte woon sax donc euh, man da nga nekk sama xarit nekk sama lépp ma xalaatoon ne euh, mënoon wax naa la fi invité ndax nga mën a wax rôle bi nga xamante ne moo ngeen joué yéen euh, kilifa diine yi ci li nga xamante ne moo fi jàlloon. asalaamaaleykum soxna Fabienne Mame Diarra. Mhm. maa ngi lay nuyu di nuyu Lassana di nuyu it mboolem Sénégal yi ñuy déglu di nuyu it sunu xarit Alaas Ndiaye. Mm. Euh, ak soxnaam Marème euh, di wax ne it euh, gannaaw bu loolu jàlleet ñu ngi jël nuyoo bu tedd mm-hmm. bu sell di ko teg ci suñu kilifa muy sëriñ Mountakha Xaadim Rasul mm-hmm. waaye noonu ñu koy nuyoo it noonu leen di nuyoo mbooleem xalifa bu ne ci réew mi ak mm-hmm. mbooleem kilifa diine ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare li nga wax dëgg la suñ wëlëri nga kuréel gi nga xam ne moom leen jiite muy taxaw nonoy mag ñi muy dox ci lépp loo xam ne day aar nonoy mag ñi am na rôle bu mag boo xam ne nii yaa ko ciy doxal ci biir ba nga xam ne mm. wàllu suréel communication bi bokk nga ci ñi ko jiite euh, laasana miit ñu ànd ci liggéey liggéey yu rëy euh, mm. kon euh, du ma mën a def lu duti nangu ivitation boobu yaakaar naa bii mooy ñaareelu yoon xaw ma ñetteelu yoon mm. waaw ngay ñëw sama plateau rafetlu liggéey bi nga xam ne mm-hmm. yéen a ngi koy liggéey muy liggéey boo xam ne lépp pour Sénégal la pour njëriñu Sénégal la Euh, léegi nag euh, téléspectateurs yi wax ngeen ma euh, baal tuuti ndax waruma woon commencer sax naam te rendre ma hommage Thione sama xarit sama wëllëre pendant des années mu nekk mu nekk koo xamante ni dafa jóge àddina xanaa ñu koy ñaanal rek yàlla xaaxi ko àjjana et puis li mu rëccu daal li mu fi doon jaaxee moom ak yu Ndour rek comme ni ko Youssou Ndour waxee c'est de grands amis ndax man ba ma kay gëj a gis euh, boobu mu ngi ñëwoon ci dëju ma mag Youssou Ndour ñoo àndoon ñu ñëw ci dëju Ahmed Amar donc je pense que ça fait moins mais man mii ci sama bopp euh, waxtaan naa ak moom yaa 15 jours balaa muy gaañu donc ku ma waxoon ne sama mujj waxante ak moom la téléphone dina ma jaaxal ci loolu rek euh, yàlla daf ñuy won rek ne moom moo mën saa su ko neexee rek mën nañu jël ndax àdduna kat du kër te lii du jaas dañ ko war a sóoraale te àdduna nekk fi def lu rafet am na solo muy ak ñi ngay liggéeyal muy ak say soxna muy ak sa jëkkër muy ak képp koo xamante ni ci àddina rek nañu rafetal te def teraanga ndax àddina teraanga rek la tey moom mu ngi feneen waaye ay jëfa mu fii te coon duñ la mës a fàtte mukk ci àdduna man nag su ma xamoon ne jour boobu noonu bu ma waxee ak yow 15 jours avant ngay gaañu xëy na danaa toog ak yow nga xelal ma ci leneen ak leneen nga tegal ma ci man daal dénk naa la waali boobu xaw ma woon ne yaa ngi tàggoo donc xam naa su ma continuer sama xol day fees ay rongoñ tuuru fi mais nag euh, yow du loolu nga bëgg du loolu nga soxla fu mu nekk nii donc euh, maa ngi koy jaale sénégalais yëpp di ko jaale doomam yi di ko jaale Kiné voilà. sëriñ bi loolu faw ma fa il fallait que ma wax ko daal ndax sama kóllëre la woon moo àdduna ànd inna mm-hmm. lillahi wa inna ilayhi rajiun waxtu wu nekk mm-hmm. euh, ci loolu ni dëkk mm-hmm. nekk noonu nga ko waxee rek ñun ñii di wax ak yow it euh, coon it moom nit la woon koo xam ne Sénégal ñëpp ko xam ci lim daan wax it tuddee ko baatu musique da cee am yoo xam ne yu am importance la yoo xam ne ñuy dund ak nit ñi la daan la daan wax loolu it moom du man lu dul rafetlu ko noonu nga ko waxee it noonu la am sun ñaari mbokki kilifa yi diine ñun it yoo xam ne nii génn nañ àdduna Euh, kenn ki muy Serigne Bass Mbacké Typ ñoo bokkoon nekk ay responsable politique APR ba pare bokk Touba di ay kóllëre du ay xarit ba fii may waxee yow man Abidjan la ma fekk maa ngi nii war a dem jaale ko mhm. euh, doon koo xam ne ku baax la woon ku sell la woon ku bëgg lu la waaye suñ beneen bàyyi boo xam ne Serigne Modou Mokhtar Mbacké ku ne dégg na ko lu ne wax na ko fii ci ay waxam di des ba faaw doon nit ku sell ku baax koo mhm. xam ne moom it dafay jege ñu ngi mhm. koy jaale di ko jaale réew mi yëpp di wax ne àdduna li nga wax rek àdduna amul solo nii la rek euh, bis bu set bisu bis bisu nit la bis bu bisu nit la mu juddu waaye bisu nit la it pour mu delluwaat mhm. maa ngi koy jàll Sénégal yëpp ak mboolem ñi fi bàyyi ko it ci feebar bi di Covid bi ñu ngi koy jàll incha di ñaan yàlla mbas moomu jeex amin amin sëriñ bi léegi rek sëriñ bi damay ñëwaat rek euh, euh, pour xam euh, ban rôle naam kilifa diine yi am nañu place ci processus décisionnel étatique lépp li nga xamante ne jàmm la mais est-ce que xalaatuloo ne dafa jot ñu institutionnaliser intervention du pouvoir spirituel dans la sphère étatique. xam nga li nga wax léegi nii. kilifay mhm. diine rôlam dafa doon loo xam ne. Mhm. Euh, surtout suñ kilifay diine yi ca foo dem ci àdduna ci Afrique da nga fa fekk loo xam ne it lu mel noonu lay doon. Mhm. nga xam ne ñoom waxtu bu nekk tamati bu jafe-jafe amee danoo war a jëg taxaw ñoom mën a wax ak population bi. ñu nopp ndax la ci ëpp solo mooy tey suñ mag ñi nga xam ne liggéey nañ réew mi. jàkkaarloo woon ak nasaraan yi heure bu nasaraan yi xëyee bu ngoon jotee ñu maase la lépp taxawal li nga xam ne mooy ngirum yonent bi ba tey jii mën nañoo wax ne ci histoire bii jàll dana joxe tegtal bu rëy ndax dana mhm. wax ne seen af bu neexee ak bu naqaree li wér ci wóor mooy kilifay diine yi ñoo yor réew mi mhm. ndax li tax ñu yor réew mi mooy heure bu nit soxlaa ci réew bi ci ñoom ngay dem mhm. waaye heure bu jafe-jafe amee ñoom rek ñoo mën a dalloo population bi ñoom rek ñoo mën a doxe jàmm ba lépp am plus nag teg ci ak ni yi suñ bi di def ak xalifa yu ci bari di génne ay moyens ci poosam. Mhm. Euh, di di di di di ko jox population bi ñëpp gis nañ cinquante millions yi li mu def ñëpp gis nañ deux cent millions yi. yam defoon ca li nga xam ne mhm. mooy bi. Mhm. kon danoo wax ne euh, jot na. jot na ci guddi yi ñu toll kilifa diine yi ñu gën leen a jox li nga xam ne euh, mooy seen wàcc waaye xam ne réew mi it. ñoom ñooy ki koy nga ngak waaye jot na it ñu nit ñu gën a organiser wu. parce na ne mag ñi. am na liggéey liggéey bu rëy fii laa koy annoncé ci biir plateau bi. Mhm. jot na ñi ngi def loo xam ne moo xam Mbàkke ma Mbàkke Jolof la fa maam Maram tëdd wala feneen la bu tournée boo xam ne dañoo war a dem ci mboolem kilifa diine yi. Mhm. parce que ñun jà jàpp naa ne ñoom ci seen biir réeroo ñu. Mhm. waaye jot na Sénégal wala àdduna bi. gis benn bis boo xam ni ñoom dañuy dajaloo ci benn place ñoom suñu kilifa yooyu mm-hmm. ñu yendandoo fa waxtaanee fa waxtaanee réew mi mm-hmm. ba nga xam ne yu mel lu mën a doon ku kuy soxla réew mi sax dañuy xool ba xam yow mii lii nga jëkk di ko wax ak di ko def ndax méngoo naag réew mi mm-hmm. wala sa taxawaay ci réew mi ndax laaj na li nga bëgg pour ñu jox la réew mi ñu war koo def kon jot na ci waxtu yi ñu toll dana def tournée ci sëñ Mountakha sëñ Mbaye Sy Mansour ñoom ñëpp dana dem ci ñoom pour waxtaan ak ñoom xool nii seen maam yi nekk woon benn ci wàllu deret ndax ko ci dàq rek mu dem fekke maaram mm-hmm. waaye ci biir lu mel noonu it jot na ci àdduna bi fi mu toll donte benn bis la boo xam ne dañ koy yendandoo àdduna bi déglu leen mm-hmm. ñuy waxtaan ci situation réew mi ndax foofu la àdduna toll loolu moom convergence bi mi ngi ci liggéey bu mér mm-hmm. bu mel nu mel noonu waaye it Euh, li may wax bu politique jotee ñu ñëw tàllal leen loxo ñaan leen. Euh, bu bu jàllee rek ñu fàttali leen bu jafe-jafe amee ñu ñëw. Mm-hmm. yooyu dafa war a doon lu jeex. Mm-hmm. aspect boobu li tax mu am solo mooy dañoo nekk ci réew moo xamante ne c'est vrai bari na ay ñu daal di leen di jox ay nombre tànk yoo xamante ne ci ay élections la ñu koy jaarale ñuy jiite ay institutions waaye dafa mel ni ñoom dañoo dem ba seen kàddu dootuñu ko déglu kàddu kilifa diine yi dañuy gën a déglu que kàddu yu hommes yi. waaw xam nga loolu li koy waral euh, réew mi dafa am ci fu mu tënku. Mm-hmm. gis rek am na kilifa ca réew mi li fekk mi ngi tënk ci lu mel noonu rek yu bari dañ koy séentu ci duñ fa egg mukk ca li tax tegtal joxe na ci mbir mi tey réew mi nii mu dalee am kilifa tax mu dal ca am kilifa dafa baax ci lu mën di doon ci àdduna kon loolu nga wax mooy li am nit ñi déglutuñu homme de politique yi man placé naa pour wax ko ndax boo xoolee sama casquette bi ñaari casquette la mhm. côté politique la côté sëriñ la mhm. kon lu ci ne dund naa ko at at mais fii ñu toll parce que la plupart tey jii bu ñu gisee nit ñi di bonal politique li tax ñuy bonal politique mooy lan mooy ñu ci bari lan lay waxtu du bokk la def. Uh-huh. ñu ci bari tamit la ngay jëflantee ñoom di ko wax ak ñoom buñ génnee leneen la ñuy def. dem na ci ba nga xam ne sax euh, système bi ci biir yàqu googu mu yàqu dem na ba léegi sax euh, gis na ne. réew mi ku ëpp làmmiñ wala kuy wax wala kuy attaqué daanaka yaa ci gën a mën a jariñu ñeneen ñi uh-huh. dem na ba nga xam ne wàllu ngor da cee jeex uh-huh. dem na ba nga xam ne man ni ma gisee dafa mel ne gor yi dañoo jiitu woon di dox ñu dem ba yàgg ay jamono ñu ne ñi nga xam ne ñooy gor yi dëpp dëppaat leen bu ñu dëppaatee day mel na ci gannaaw ñi jiitu woon ñooy desaat gannaaw. Mm-hmm. ñooy jiituwaat. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu dafa am ci système bi ci côté bu mel noonu kon loolu it mbir la moo xam ne faw ñu xeex ko ci faw it ñu doon loo xam ne dañ ciy mën a liggéey parce que fii ñu toll benn homme politique boo xam ne ni presque population bi ñu lay déglu. amatul kon kan la ñuy déglu kilifa diine yooyu kilifa diine yooyu nag war na noo gën a mën a organiser seen bopp. war noo gën a nekk benn war noo xool di xam ne adduna kat am na lu seen maam yi liggéey waaye àdduna dafa am fu mu toll ñu gën di jege gën di waxtaan xam ne benn intérêt bi ñu am ci population bi ànd ak ñoom di leen déglu ñu fexe ba aar ko ba nga xam ne du ndongo sax benn politicien yàqu ko mhm. te ñun ñi boo gisee sax ñu dugg ci politique mhm. jàngat boobu lan am ndax man toujours seen émission bi wala feneen dama koy far di wax suba ñun gis-gis bi ñu am ba ñu dugg ci dañoo gëm ne ëllëg ndax tey ci sëriñ si bu njëkk boo daan dugg ci politique danaa ab sëriñ warta dugg ci politique parce que ab sëriñ nangam mais léegi loolu mi ngi jeex si kon dañoo jàpp ni réew mii di di di Sénégal suba ku sant si war na koo mën a yor wala ko sant Mbàkke wala ko sant Ñas wala ko sant kan ko sant neneen kon sëriñ si danoo bokk ci réew mi di liggéey ci réew mi wàññi ko it bu jafe-jafe amee sëriñ si ñooy ki nga xam ne ñooy taxaw jàkkaar loolu waaye bu ñaan am jotee sëriñ si ñooy taxaw di ñaan kon li nga wax lu leer naa ñu la kenn déglu tut politiciens yi mhm. sëriñ si leen déglu waaye nag jot na sëriñ si gën a organisé dëgg la mais sëriñ bi euh, dañu xool euh, coow yi nga xamante ne moom moo fi amoon ba ñu ñëpp ñu jaaxle parce que senegal lu ñu ko xamal mooy dal mu jékki-jékki euh, mu am loo xamante ne daal ñu bëri sax ñemewuñu woon génn seen kër ma lay laaj yow loolu en tant que sëriñ noo ko dundee ak yan jéego Euh, nga si def am mu am tamit benn kaset boo benn euh, vidéo boo xam ne maa ngi lay dégg ñu ne que ngay wax ne force reste à la mhm. dafa am ñoo xam ne ne waruñu topp li nga xamante ne Sonko loolu lay wax. parce que Macky tamit dafa nekk jiitu réew mi am na foo xamante ne euh, buñ fa àggee moom non seulement war na wax mais moom yi tamit bu ñu jël waxam travestir ko. Euh, yóbbu ko foo xamante ni du foofu parce que moom moo war a njëkk a bëgg euh, dëgg. waaw loolu nga wax jàmm plutôt. Euh, bu dee côté diine bi. Mm-hmm. lañ ca war a dox muy jàmm ji ak wax ji loolu moom suñu rôle la dañ koy def ala kulli alin. Mm-hmm. mooy li ma la wax ne côté diine bi mooy li ngànk loolu. Mm-hmm. bu dee casquette politique bi foofu dafay jàpp ne réew mi dañoo war a respecter li nga xam ne dañ ko def ba tënk ko. ba société bi di ci dund mooy fexe ba nga xam ne li nga xam ne mooy justice ak yeneen yu mel noonu mooy ñu fexe ba aar ko. Mhm. fexe it ba nga xam ne ah, yéen ñi jàng nasaraan da ngeen naan xuma euh, ba tey force force. la loi mhm. ah, beneen bi ci des it mooy kenn nekkul ci kaw loi kon population bi. Euh, Euh, dañ koy war a respecté mu doon sëriñ ndax ñun ñi di sëriñ bu dara dalee ci kaw day mel ne gars yi sax dañ koy gën a jabalu si ca la ca yoon dañ koy def parce que dañuy bañ mm-hmm. wan ne ab sëriñ euh, mm-hmm. jaar na fii defuñu lu mel noonu kon noonu muy dalee ci suñ kaw noonu la war a dalee ci mboolem homme de politique bu nekk ci réew mi du yoon ñu gis ne yoon dafa woon nit nit ki dafa war a dem wuy ji jàkkaarloog yoon parce que euh, man mbir mi bi mu amee dama ne ñaari citoyen la nan bàyyi ñaari citoyen ñu lijjanti seen mbiri bopp mm-hmm. parce que ci yoon sax man li ma wax noonu nga xam ne état bi début bi tamit dañ cee xawoon a nëtër politique ñu ko waxuñu lu ci jëm mooy loolu moo war a continuer ci yoon parce que ci yoon euh, mbir mi bi mu amee ñaari citoyen yi ñoo am problème waruñu ko jël politique ko naan ay complot la ak ay lu neen moom na dem jàkkaarloo yoon bu jàkkaarloo yoon yoon wax la muy wax bu fekkee ne amuñu benn preuve ci complot boobu wala gisuñu loolu bu boobaa yoon xam na la muy def waaye ci yoon kenn ku ne woo muy def ay lobby ak def ay manipulation pour yëkkati population bi parce que man dafa am lu ma gëm man dama wax ne booy day xeexal sa réew wala nga gëm sa réew di xeex ak moom doo bàyyi ba am sa problème personnel man dama jàpp ne am avant problème personnel bi mhm. da ngaa war a génne nit ñi ci dëkk bi ne ah Covid bi nit ñi sonn nan da a génne nit ñi ci dëkk bi nag ndaw ñi ñi ngi dem di jël ay bateau da ngaa war a génne nit ñi ci kaw nag jàmm génne gi génne gi ci jàmm laay wax waaye nag lii ma gis moom mbir la moo xam ne Euh, man dama jàpp ne mbirum personnel kenn waru ko jël di ko xeexee. parce que est-ce que du doxalin bu homme politique yi di faral di adopté parce que c'est vrai Ousmane mm-hmm. Sonko citoyen la mais aussi dafa am casquette politique te fa yàgg nañ di faral di gis ni euh, homme politique yi souvent ñu amee xeetu problème yu ni mel faaw ñu jéem a xëcc askan wi euh, ci seen boor ngir ñu mën a am benn xeetu kiiraay. loolu laa la wax ne la. Mm-hmm. ku ci am sa problème personnel da nga koy régler ak justice waaye du yoon nga jël population bi wàcc loo leen ci télé bi génn leen xeex. ca ba ngay dem ca foofee ñu wax yaa fa demal sa bopp kenn demula wuta ko noonu yaa fa demal sa bopp kon bu demee ba nga xam ne ay mbir am na ci ñu la ci topp yow même bu fekkoon na nar nga ko fekk ne euh, jafe-jafe réew mi wala yeneen la loolu war naa tax sa gëm sa réew ak gëm justice ak gëm ne mbir mi boo ñëwee boo demoon boo war a yor réew mi sax mbir mi dafa war a changé wuroo wàcc loolu nit ñi ci terrain bi wuroo leen a ne kenn ku ne tey mbir la moo xam ne da dañ ci jàkkaarloo Euh, euh, nguur gi wala yu mel noonu comme ni ko soxna si waxee léegi nii euh, du caagi ni ànd gi ma ànd ak président Macky sàll la mais dama damay rafetlu act bi mu def parce que ki tey ki tey bi lu mel noonu amee moom ci jëmmi boppam ñëpp xam na ne ci début bi benn communication bu jógee ci au niveau de présidence amul pourtant man mii jàngat ci sama casque politique dama doon waxtu woowu bi ma déggee ñuy wax rek dama ne woon nan jëkk parce que question politique réponse politique mhm. mhm. nan jëg comme que ñu ngi koy politiser jàkkaarloo nit ñi jox ñi nga xam ne euh, euh, population bi ñu xam lan moo ne ci mbir mi waaye nan nan bàyyi soxna si mu mhm. génn wax ak nit ñi leeral leen wax ne accusation bii mu def fii la ko teg man loolu moo doon sama xalaat liggéey naa ci liggéey bu rëy ci lu mel noonu mais comme que ñi muy wër président ma doon jokkoo ak ñoom di wax ak ñoom nangu ñu maa déglu ah, dem li may waxoon mooy nan bàyyi soxna si mu génn ak i mhm. avocat am jàkkaarloo population bi wax leen lan moo am mhm. ak naka la amee mhm. pour population bi bañ a déglu manipulation yi am ak communication yi nga xam ne ñoom Ousmane Sonko ñoom ñi ko doon eh, eh, eh, jàllale pourtant fin bi bàyyi nañ soxna si mu wax loolee nag moo waroon a njëkk ci yoon wi ñi ma woo ñëpp tabalee ko ci sale ba ci say ñoom ñëpp na leen ay communication nan da wax kenn wuyu ñu ma ci lu mel noonu déglu ñu ma te comme que man dama ànd président laa war a waxal ci lu mel noonu mais ñi nga xam ne ñoo ko yoral wàllu gu mel noonu ñoom laa interpellé woon ci bu ma leen di woo seen jëmm yi taxul fonction yan yore la pour ñu mm-hmm. war cee mën jàllale waxtaan ba pour communication bi jàll moo taxoon ma di ko def mais comme mm-hmm. que wuyu ñu moon lii ñu mujjee moom lañ waroon njëkk nan bàyyi waaj ndaw si mu génn citoyen yi di ko gis mm-hmm. muy wax avocat yi di ko gis muy wax bu boobaa population yi xam ne mbirum personnel mais est-ce que euh, li nga euh, homme politique ak euh, euh, nga yore euh, tamit nga nekk kiiwu diine est-ce que tamit bi nga xam nit ñi dañu waaf yow nga am fit taxaw parce que yow ku la xam xam na ne da nga am fit Serigne Touba moo nekk ci dënn bi te defe naa ne murit yëpp noonu lañ mel mhm. dañu am fit donc est-ce que tamit rafetuloon nga dem nga dem seeti Ousmane Sonko waxtaan ak moom comme boobu mënuloo woon gis Macky Sall wala wax nga ak ñi nekk ak ci waa Macky Sall pour ngeen mën a wàcc wax ak moom ndax boobu euh, képp kuy sénégalais te ngay am ngay xalaat rek xam nga ne lii il fallait il ñu ñu ñu ñu ut ci solution ndax ni déggoon nañu ñu ne que kilifa diine yi wax nañu ak moom waaye dégluwul ndax bu déglu woon affaire bi du demee noonu léegi lan moo tax euh, Macky Sall képp ku nekkoon ak moom ñoom ñëpp a waaf dem seen yoon yow nga toog wax. mais tamit est-ce que dem waruloo woon dem aussi. dem seeti Sonko xam nga politique bu dee côté sëriñ gi la war naa ko def. Mm-hmm. bu dee côté politique yi politique dafa fiir mm-hmm. boo demoon di wax ñu ne ah Macky Sall la àndal kat la war a digloo wala nan la war a acquérir mm-hmm. ne tey ànduma ak Macky Sall damaa nekk sëriñ boo xam ne damaa neutre politique gu ma su ma demee wax dana ma déglu. beneen côté bi ci desit muy euh, ñi nga xam ne ñoom laa àndal. li tax mooy toujours mooy li ma lay wax ne. Mhm. Euh, boo dee sëriña jaar ci expérience politique euh, toujours wàccukaay gi la war a jox wala di la déglu duñ ko def. Mhm. parce que damay mel da ngay am benn handicapé sëriñ côté bu mel noonu nag day sëy ci lu baree bare bare. ci mhm. nit bu fekkee ne ñëpp dañ laa xam ci dëgg. mooy boo jàkkaarloo président danga koy wax li nekk ca doo ci xool. ne lii ngay wut ci moom wala lii moom nga àndal loolu it ñu bari dañ lay dawale ak lépp lu mën a yàq dañ ko yàq parce que am na sëriñ soo xam ne nii tey Euh, mbir mi jëg nañ ci bi communication yi amee ci au niveau du mmh. lu ne dégg nga ko sëriñ bi wax na lii. sëriñ bi waxul nangam pourtant bi mmh. sëñ bi génnee doon sëñ tubaa di sëñ tox Muntaxa mat ko sëkk. mboolem ku fi nekk sëñ tubaa rek liggéey na la ba doon sëñ Touba. mais bi mu génnee ay communication bi mu amee dama ne leen sëriñ bi ci jëm bi boppam waxul wax ji. Mmh. benn ko ndax sëñ bi du wax ba yàgg naan. képp ku mënta ñàkk manifester wu ci Touba génnal nga manifester wu ci biti est-ce que wax boobu waxu sëñ bi kon loolu du ay kàddu ki laa génn na lii du kàddu sëñ bi mi ba bi kàddu sëñ bi ñëwee ak jëfi sëñ bi porte-parole am génn na wax mu jëf loolu mooy kàddu sëñ bi côté bi nga wax nag muy côté Ousmane Sonko mënu ma woon a dem ndax sama casquette politique bee tax bu ma demee ñoom duñ ma déglu sax wala ñu lu ne ma na faa am ak giseen kon beneen côté bi ci des ñi ma waroon a déglu mooy ñi ma àndal ci ñooñu ñu ci bari dañoo waaf ñu ci bari ñoom ci seen jëmmi boppam boo leen wooyee dan maa def sama liste sax la ma def ndax woote bu bari ñaareel bi beneen bi ci des it mooy euh, euh, euh, boo jàngatee ñoom ci seen jëmmi boppam ñii ñu ngi demoon pal lama lamantee bis ñi nekk teeru bi ñoom ñu ci bari sax génn nañ seen i kër daw waaf ñenn ñi bañ nañ ko ba seen i profil sax i profil la profil téléphone whatsapp loolu xanaa ñàkk gëm sa bopp la wala ñàkk wóolu sa engagement parce que boo àndee ki yenn moment yi la sana ñaare koy indi mhm. Euh, mooy ñoom jàppoon na ne mbir mi président du ci génn. Mhm. na ne lay demee kon ñoom nun mën a waaf ngir daw danañ ko def. Mhm. beneen bi ki des jàpp na ne suñu yëkkatee seen i kàddu gars yi dana dem attaqué seen i kër yàq ko. Mhm. mais amuñu woon sax fi tu toog seen kër danoo génn seen i kër. kon loolu nit ki buy def wala muy ànd ak nit. man euh, da dem ba jeex da ngay dem ba jeex mooy bu fekkoon ne ñëpp daw nan wala ñëpp kii nan Euh, yow ci sa jëmbi boppam da war a ànd ak kooku ba jeex man ñëpp xam na ne. Euh, nan ma war a jàppee ak lan wa lan ma war a taxawoo ci wàllu politique ci réew mi ñëpp nga koy gis. Uh-huh. nan ko war a doxalee doxaluñu ko mais sama gëm-gëm sama gëm-gëm ak sama engagement mooy moom laa àndal dama koy wane. donte li war a am amut lu ne mi ngi am ci seen biir. Uh-huh. lu ne xeex bu ne mi ngi am. Uh-huh. mais sama gëm-gëm mooy président Macky Sall laa àndal. dama ko war a wane parce que man noonu laay doxee. sama dox dox nag ci bu mu noonu kenn mënu ko dindi mhm. du ma xool ne kii def ni lii wala nii la defee wala def nangam mhm. am na ci sëriñ soo xam ne bi ma leen wooyee ne leen yéen kat yéen a nekk bu président yónnee da ngeen di taxaw ah na yéen a ko fi nekkal wala yéen ba président nangam a nangam mhm. mu naa ma ne ko pourtant ay sëriñ ñi ngi wax lu ne président ñu ne ma ñun duñ jàkkaarloo suñu moroomi sëriñ man leen d'accord mais est-ce que seen moroomi sëriñ yooyee bàyyi woon nañ xel ne yéen ki ngeen àndal ñi ngi koy attaqué guddeeg bëccëg mun sañoon ànd gi ngeen ànd ak moom ak cër yi ngeen am suba mu jeex est-ce que ñooñu bàyyi na leen xel man ku ma bàyyi xel ku ne du ma la bàyyi xel man loolu laa gëm ci loolu laa nekk mais pour wax la ne euh, yii di am daal dafa war a doon yoo xam ne dafa dafa war a jeex ak nu mën a jeexe parce que réew mi di Sénégal nan xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk président nag def na acte bu rafet ndax ba mbir ma jegee kilifa di diini ñaan li gën a am solo moom la def mooy dañu teg Mm-hmm. am réew. Mm-hmm. bu dee yëngatu da nga bala ngay def dara da nga naan teg mm-hmm. gis mbir mi xoolaat ko jàngataat ko bi mu demee ba nga xam ne ministre bi nga xam ne mooy yor ministre de l'intérieur génn na. wax na wax ji pourtant yi ñu ci bari dañ koo xaw a eh, jàppewut lu loolu mais man dama cee jàngat yu bari. parce que ministre de l'intérieur du am euh, euh, euh, information renseignement lay am. am réew nag dafa am ay bànqaas yu ci ne ak lu ñu yor. man mii di wax yow déglu naa benn ojo boo benn waay boo xam ne bi mu jegee dane on est là pour libérer euh, ABK kooku fan la jege boo xoolee ci kii yi mi mi mi ngay daw mm-hmm. ah da nga gis ne am na yeneen yu ci rax ak yeneen yu ci rax mm-hmm. yooyu nag ñoom ñi ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur information yooyu muy am ñun euh, euh, renseignement yi bokkut ak information mm-hmm. am na wax joo xam ne bu fa am réew toll ñu xool ne sous-région bi mi ngi tàkk. Mhm. lu ne mi ngi am ci sous-région bi. Mhm. ah mhm. yow ci sa jëmmi boppam it da ngay respecté li nga xam ne moom la sa réew di doxal ak xam eh, yi muy def. bay am mais mbir mi. ay règlement de compte yu bari da cee da cee feeñ. mais est-ce que est-ce que renseignement yëpp baax na ñu koy génnee ci kaw parce que wax nga ko am na yenn yoo xamante ne ci kilifa yi rek la war a des ñoom ñu gérer ko ba jàmm am. a woote. nit ñi dégluwuñu ko parce ko miinuñu mhm. moo am ci biir xam nga lu ci ne da koo juñu ba ci mhm. am na yu mais li ci ëpp solo ëpp ci solo mooy tënk na ko du lépp la mën a mhm. parce que état dafay euh, lëm ci ak lëndëm goo xam ne ni état dafa nekk ci benn euh, bul bu lëndëm bu lëndëm la nekk du lépp ngay génnee di ko leeral ci biti parce que pour population bi ni ñu dundee mhm. il faut que am yoo xam ne da koy garder waaye lim junj ku ko junj boo dee bërëmu dégg da ci mën a jàngat lu bare bare bare mhm. da ci mën a xam yu bare bare mhm. ñii dem doon lakk ay océans yoo xam ne ñaata ci ay sénégalais ñoo fay liggéey eh, eh, la sana ay ay ay doomi sénégal yu jeex ñoo fay nekk di liggéey di daan seen doole magasin yooyu ñu lakk bu subaa ñun ñoo koy wëri di ko jëndiwaat parce que dafa ànd ak suñu dund li ci gën a bon démb bi ma demee Abidjan mais Sénégal Abidjan tàkk na feneen tàkk na feneen tàkk na. Mhm. mais bu ñu waxee de Sénégal ñun Sénégal lan doon roy Sénégal lan doon xool réewu teraanga. Mhm, Sénégal nag lii fi am lu tax mu ngeen dal ba jàngoro jooju bëgg a mhm. mais partenaires yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew di gis image yooyu lan lan lan ñuy def. kon dama jàpp ne sunum réew mi ngi woon ci euh, euh, di développer di avancer ñuy continuer di di di liggéey mais nag lii am na ci jàngat bu mag boo xam ne nii képp ku am xalaat war na la ko mën a jox xam ne lii. génn xale yi def ko liñ yàq seen yëfi bopp la mhm. du yëfi président Macky Sall du yëfi ki nga xam ne interpersonnel am moo taxoon mu leen doon xeexloo mais président day liggéey liggéeyam ba mu jeex waaye ëllëg it keneen di ñëw ca lii ñu liggéeyal Sénégal mhm. xamal ne ci ndoddi Sénégal yi leen ko jëlee mooy ay taxi la yun jël di ko leen ko liggéey leen mhm. beneen bi ci des bu dee ay fonds la yun jël ci yeneen yeneen organisation yi ëllëg Sénégal yee koy fay man nag du yow su ma la dégluwee euh, da danga da def analyse boo xamante ne da nga nekk xale yi rek dañu génn loolu nga de mais euh, xalaatuloo ne xale yi nga xamante ne dañuy génn ñooñu amuñu amuñu liggéey mm-hmm. benn euh, boo amee yenn âge yaa ngi war a toppatoo sa yaay parce que mm. sa yaay mag la gisoo liggéey gisoo dara mu amoon ci ay xale yoo xamante ne dañu jëloon gaal gi mm-hmm. dem ñii mënuñu dem ñii dellu siwaat dans des conditions yu difficiles Euh, Sénégal amul kenn koo xamante ne amoo lu la metti di ko denc ci sa biir xol. Mm-hmm, mm-hmm. loolu dama koy évoquer ak yow parce que yow nitu dëgg nga. ba ci man mi. voilà mm-hmm. muy yow muy man. du dëgg muy keneen. mais ku nekk sam bopp nga mën a waxal xale yooyu. frustration moo leen génnee. ba pare lenn aussi du Ousmane jëpp Ousmane Sonko rek moo leen génnee. ñu bëri dañu mere. Macky Sall ñu génn kii woon ci loolu. léegi moment bi comme yow xaritam nga tey yaa ngi ak moom ndax man xam naa seen diggante. moom moment boobu lan moo ko téye woon mu yéex a génn wax ak askanam parce que ak nu mu mën ci demee moom la ñu nommé ba 2024. te borom kër defe naa ne bu sa kër di lakk am na moment yoo xam ne da waroo xaar ñu lay ñu lay euh, ñu lay saraxtu pour nga génn parce que il a mis du temps ñu gis sa Seck njëkk a génn loolu jaaxal nit ñi nit ñi gën a mer léegi est-ce que c'était pas opportun ko moom mu génn wax ak nit ñi. ba pare ci communication moom xam na ne ni mu doon ni mu def doon jàppee réew mi demewuloon noonu. dëgg la soxna si. waaw li nga wax dëgg la euh, damay wax toujours. Mhm. li amoon du Ousmane sonk rek. Mhm. Ousmane Sonko bu naagoo di def ay tournée jàpp ne moom la mi ngi nax boppam. non moom mënul yónni sax ay xale. waa ma ne li ma la wax. li génnoon du pour Ousmane sonk mhm. yi ci rax nan ko teg fale mais sénégalais yi gone yi li nga wax dëgg gu wér. kenn kéng la. mooy ñoom ci seen jëmmi boppam amuñu xëy ñaareel bi ñii ngi dem ci bateau yi ñi euh, euh, euh, gaal yi ñii ngi dem ci leneen parce que ñii dem ci gaal yi nañ leen bàyyi xel mm-hmm. ndax nit koo xam ne fii nga jëm leer na la naññ ne ak dee fa ne nga fay dem ba fay dem xam nga ne am na sa pas ak ngëm goo xam ne fa nga mm-hmm. nekk mm-hmm. kon ndokk bi nga xamee ne président def na benn action ci saasi lim génnee ci ay milliards pour wane ne yéen kat xale yi dégg naa seen déy loolu lu am solo la parce que man damay jàpp ne grandeur u nit ki mooy boo demee ba réew egg fenn fi nga am grandeur u génn ne lii kat am dégg naa yéen li ngeen wax. muy mhm. sama population sama ndaw réew. Mhm. kooku moom dama koy apprécier mbir mu rëy la li nga wax nag état dafa am lu muy doxee du lu jëgg rek kilifa génn wax. yaa di sos yoo xam ne bu amee mu bett. Idrissa Seck li ko wax loo moo tax ma ñëw bu fekkee ne dara dafa am bett parce que lii mbettaange la. Mhm. mbettaange lu rëy rëy rëy parce que li tax ma ne la mbettaange la mooy président xalaatutoon ne. ndaw ñi ak mbir mi egg na fii kon lu mel noonu bi mu amee mu def ci njàngatam il faut ministre de l'intérieur génn Idriss Seck nag action boobu mu def man ñëpp xam na ne su idi maa ngi moom. Mhm. am na suñu mbir kenn xam. waaye xam nga mais mais am na laa muy indi sauce laa muy indi sauce. Mhm. man damay acte bi mu def it dama koy dama koy féliciter parce que man it no nit ki damay gis ne heure bu nee ci jafe-jafe yow mi ànd ak moom lu mën a ñëw. man mhm. sama gëm-gëm mooy lu mën a ñëw dama koy ànd ak yow. ci biti. waaye discours bi mu génne discours bi mu génne. du moom moo war a wax Ousmane Sonko. ay boo waatee ci kaam bi rek ay def nii ak def noonu. mooy li ma la wax rek c'est ak. Euh, waaw mais loolu boo xam ne ñëpp tiit. ay nit di indi waxu politique. moom laa lay wax ne affaire politique la xëy na moom gis-gisam foofu la toll. Mhm. côté bi ma ko apprécier mooy lan moom warut a génn ndax loolu moom diggante Ousmane Sonko la ak justice. Mmh. wërta génn di wax loolu loolu d' accord naa foofu boobu mmh. wax moom mmh. man lu dëgg dëgg dama koy nangu d' ne war na ko wax mais li nga xam ne moom la def action boo xam ne bu ma koy euh, apprécier la mooy euh, kii bi am waaw pour génn pour wan ne moom kat tey deuxième personnalité waaw moom moom tey moom euh, Moustapha Niass mooy deuxième personnalité moom moom conseil bi voilà non même bu dul loolu moom tey kat ñëw na ci moise présidentielle. dafa war a défendre li nga xam ne mooy mooy mbirum. loolu loolu moom waaye loolu ko wax moom mm-hmm. man rafetlu ko. moom mooy génn naan ko waatal wala yu mel noonu. mais loolu moom mbirum politique. mais au delà de lii am laasana Macky Sall la président Macky Sall la ndax dañ koy jox ca suñu président la euh, ba muy génn euh, di wax avec la nation. dafa ne man ku sol euh, ku ku ku takk ay brassard rouge sax damay foog ne ne da nga kii euh, man duma yàlla am na yoo xamante ne gis nga boobu ba léegi ñi ñànkam ñànkay mere xam nga le peuple sénégalais c'est des gens yoo xam ne ils sont très pacifiques mais sëriñ bi di nga jaakaarlu ak kenn koo xam ne defoo ko dara c'est tout le contraire teraanga nga koy defal chaque jour mu xëy benn jour euh, añul ndekkiwul mu teg ko yow ci ci sa kii. mais ah, loolu la comprendre nga fi may expliquer donc nit ñi dañu dajalee lu bëri. soxna si noonu la àdduna di doxee. waaw lu bëri lañu dajalee. waaye toujours damay faral di wax ne. Mhm. Euh, ñaar day am. xam nga bu ne population Sénégal dañuy compter ne ñëpp dañuy dugg ci biir. ñëpp. Mhm. Mhm. jàpp leen ne ci population na ñoo xam ne it président Macky Sall lañ àndal. dëgg damay faral di wax ne euh, am na lu am. li am mooy lan mooy président ci jëmmi boppam ñi ko war a informer wala ñi nga xam ne. Mm-hmm. ñoo ne ci wetam war a am rôle yu ñuy dox. ñoo ko est-ce que moom it ay réaction waru ko xoolaat parce que bu fekkee da génn ne non ci côté ndaw ñi parce que ba mu génnee sax am na kàddu yu rafet yoo xamante ne daf ko yëkkati parce que nee comprendre na ndaw ñi euh, waa dañoo génn pour euh, wane peut seen seen mais côté milliards yi est-ce que à chaque fois problème su amee rek milliards moom moo koy solutionné est-ce que waruñu xoolaat milliards yooyu ni ñu koy doxalee parce que milliards yaa gën Mm-hmm. dafa ci am ñoo xam ne dañ koo jàppalewut ay lu rek lan lan nekkee mooy kii sëñ Modou Bara Dolly du kenn lu tax xam nga xam nga mbir mi mm-hmm. li ci nekk dëggantaan lépp mënees koo wax gis nga tey ñii nekk ci plateau yi doon ay kilifa di wax kenn ku ci ne ci ñoom li leen di defal ak fen leen di féete billaahi ñun ñi di di jàkkaarloo ñoom féete ñu leen fa xam nga lu ko indi dana système bee doxe noonu mooy lan mooy booy wax lu bon di wax lu ne am na sama benn mbokk su le sali sama xarit la sëñ Modou Bousso Dieng mm-hmm. waaw xam nga am na lu mu wax nii jëmale ko ci wàllu sëriñ bi ak yu mel noonu kooku moom xëy na dafay doon loo xam ne lu may lu lu may metti la ndax man lu ma politique politique politique man sëñ Tuubaa ma gën a lu man di doon ci àdduna absolument man sëriñ Tuubaa moo ma gën a lu mu a doon ci àdduna ci lu ma ko mm-hmm. booleel ak dara tey fii may wax yow bu mu sëñ Muntaxa na woon bàyyi lépp lu jëm politique ma bàyyi ko fii bis ni ki mm-hmm. kon sama gëm-gëm bu mel noonu mooy euh, waxtu wu ne nii Ousmane Sonko nii président Macky Sall mi ma àndal du ma ko boole ak Serigne mm-hmm. kon nag am na ci wax yoo xam ne ci côté man loolu moom gisu ma ne war na ko mën a wax loolu dama ci mm-hmm. entre parenthèses la mais benn bi nga xam ne moom nga wax mu jëm ci ñi ko wër ñi ko wër lu tax ñoo ñu di wax di wax lu ne Macky Sall doon kilifa waxtu wu ne ñu ngi dem ci président Macky Sall naan leen seere leen jàppale leen lii nangam a nangam xam nga lu tax ñu koy def parce que ñoom fi ñu teg seen tànk baaxul ca ñooñu ñu ngi seen porox ndollu bi di ko seen. Mhm. léegi pour bañ ñu wax porox ndollu yooyu moo tax ñoom ñuy dem ci président naan diw faaw ji jàppale ko jëlal naa ne li ñuy def wax président. Mhm. waaye ñoom ci seen jëmmi boppam lu ne lañ leen di defal. Mhm. ñun ñi ànd ak moom pourtant ñi ngi gis ne ñoom jaaruñu ci yoon. dëgg la. mais kenn ku ci dem ci président ne ko sëñ ne danaa da nga ko ci woo mhm. que mooy ba li nekk di ko def ci du dëgg bëgguñu ñu wax ko parce que ñoom ay opposants la man ko wax. am na ci ñoo xam ne bu dee a ko ne ko kii kii li muy wax du dëgg mhm. bari na ci ñoo xam ne ñi waafoon ak li ñu def lépp xam naa ko mhm. mais mën naa leen a dénoncer seen tur kenn par kenn parce que ñëpp xam na ne soxna si wax na ko léegi am naa fitu wax ko waaye fii ñu toll man jomm naa. Mhm. ak ni ma demee président Macky Sall ma am yenn yoo xam ne dama koy révélé. Mhm. mais loolu dem na ci ba nga xam ne ñi ko wër dëgg gin ko gin war a wax ak li ñu war a def dañ ko pist yëpp lan la la lan mhm. lan lan kii. dem na ci nag loolu nga wax mu jëm ci sa question muy gone yi gone yi li nga wax milliard boo déggee ñu tudd milliard milliard dana lijjanti ay mbir. Mhm. ndax milliard dana wut ay liggéey yoo xam ne nii dana jëm ci ndaw yi. Mhm. dana leen financer pour ñu dem di mën a liggéey. est-ce que duñu xoolaat ni ñu koy gérer. waaw xam nga seere moom. Mhm. ala kulli alim fa la problème ba nekk. ay ala kulli alim. ca seere gi. waaye man dama jàpp ne action boobu président def ñaari baat yooyu mu def muy boole wax ak jëf ñëpp ko war a rafet. kilifa bu amee grandeur yu jàkkaarloog ay ndawi population ne leen dégg naa seen dee. fas yéene naa pourtant DRD beeg Mhm. kan ñoo ci dugg ëllëg ndaw ñi li mu fi def ci ay projet ak réalisation yi mu def ak jëm ñaaju ak yeneen ak yeneen ak yeneen dafa nekkoon préoccupation aussi non may foofu laay waxee ak yi mu def ci àll bi nga xam ne boo liggéey mhm. ci àll bi ñun ñu dund ci àll bi instant bi ma toll mhm. la mu fa def kenn xamul lu mu toll mais de toute façon loolu ndaw ñi ñoo koy bénéficier waaye nag pour li nga xam ne tey Sénégal lambda bi. da koo war a xëy añee tey. da koo war a xëy reer xëy na li muy def urgence bi. laasana ëllëg a tax mu di ko def de. dëgg la waaye ëllëg jooju mu leen di liggéeyal. maanaam tey fi ci sooxee ba tax mu dégg na dégg na seen dey mhm. mooy li nit ki xëy xëy xëy tey war koo def mooy mhm. xëy war a añ mhm. war a nekk xëy war a gis sa yaay feebar amoo ordonnance boo ko def euh, ndokk bi nga xamee ni am na grandeur ubbi jàkkaarloog population ne leen ee eh, yéen ndaw yi dégg naa seen dey ba pare nag ko waññi kuwaat demuñu une semaine mu am lu mu jëf tàmbali loolu dëgg-dëgg man même bu ma tey jii bu ma demoon ba ànduma ak moom sax muy opposant bi dañ ko mm-hmm. war a rafetlu mm-hmm. dañ ko war a nongu mm-hmm. kon foofu moom jàpp naa ne euh, milliards yooyu ngay wax euh, mu continuer di ko def mais na ko def ci jox ko ay nit ñoo xam ne ñu tegu ci dëgg la ñu transparence lan ba nga xam ne dana mën a egg ci population bi te it toujours damay faral di wax ne loolu ñuy def it bu ñu koy def dañ koo war a teg ci yoonu Sénégal euh, pas parti bu ñu wax waa APR nangam a nangam moo xam góornóoru ba nekk ab dëkk la wala préfet wala nangam mu mu tënk ko ca ba nga xam ne ñooñu danañ ko mën a fexe ba eggali ci population bi. du mhm. doon affaire APR du doon affaire ke mais nawi Sénégal. loolu sax affaire formation moo ko gën a tax a jóg formation ak li nga xam ne moom mooy professionnalisation ndaw ñi mais du doon koppar boo xamante ne dañu koy jël di ko séddale. mi ngi noonu loolu la laa bëgg a wax ma foofu mhm. parce lu ci ëpp solo. liy indi mooy def ko nga génne jox xaalis mhm. nit ki mu xëy suba teel taal ko ci benn bis demaat fa mu nekkoon lay daal di nekkaat mhm. dëgg la na ko def ci loo xam ne nii dana xale yi danañ am tuuti lu leen occupé mhm. danañ am tuuti ci lu nekk di yëngatu ca dana mën a egg ci ñëpp ca bañ a yem ci benn côté rek muy suñ côté bopp absolument foofu moom dama euh, dama dama koy rafet mais Serigne bi dañuy ñëw ci lenn loo xamante ni daf ñu jaaxal parce que xam nga ñun Sénégal mosuñu xam lan mooy affaire waasoo kii lii la kii lii la kii lële la mais wax boobu bu fekkee ne mu ngi commencé jug ba mu am ay problème ci biir université bi defe naa bàkki démb loolu na lan la lay def ay neeta ko bandum ay kii naan Casamance ay lii loolu tamit dafa wax xaw a doy waar il faut ngeen jug si daal tey mhm. boo dum dugg YouTube di gëstu samay wax mhm. toujours dama naan Sénégal ñaara ko war a mën a taal mhm. boo gisee tey ma def taxaw noonu mag yi ba wax lii ma wax jëmale ko ci kilifa diine yi war na wax ne danoo war di waxtaan toujours sama philosophie ci li ma gëm jàngat ko. mooy réew mi di Sénégal mag ñaan nañ fi naam def fi jàmm. waaye nag ñun yu fi nekk ci kaw suuf di dund ñoo ko war a aaral suñu bopp. ñaan yooyu toujours damay faral wax ne ñaar ñoo mën a taal Sénégal. muy affaire waasu wala affaire tarixa ci réew yi ñu wër yëpp boo ko seetloo loolu mooy li ko taal. kon loolu danse la boo xam ne acte la boo xam ne dama koy ñaawlu. ca lépp lu fiy tàmbali du jox joxe rek buy tàmbali xam nga fan lay tàmbalee. Mhm. ca université ca gone. dëgg parce que fa lay tàmbalee. Mhm. parce que la koy waral mooy ay gone lan seen yaram dañuy tàng. Mhm. ñaareel bi it mooy seen néewu intellect ak di jàng. Mhm. ak jafe-jafe yi ñuy dundee da leen di permettre fa la lépp di tàmbalee. loolu nag mbir la moo xam ne da ko war a teg ci suuf. muy première man bu may wax dëgg rek tax may wax. fi ma ko njëkk a tàmbalee muy ñun ñi nga xam ne danoo yore pouvoir bi ci ñun la war a njëkk a tàmbalee ñu joxe ci ay exemple xam ne réew mi di Sénégal li ne ci ay waaso ñun ñëpp Mm. ab euh, Senghor ko mu yoroon doon ab séeréer mm-hmm. jege fi ñëpp nongol ko ba pare teg ci di chrétien mm-hmm. ci minorité bi cinq pour cent la xuma chrétien yi mm-hmm. ci kilifa diini yëpp ko nongaloon parce que li ñu ñoroon boobu mooy Sénégal Abdou Diouf moo ci topp yor ko loolu it ñoroon ñu moo wax wolof la ci benn côté bi ñun ñi ànd ak moom Abdoulaye Wade yor ko di wolof laalaat ci leneen teewut ñëpp rafetlu ànd ko tey Macky Sall yor ko laal ci tukkutóor laal ci téer laal ko war a njëkk tàmbale Mm-hmm. baatum nedd ko euh, euh, ma ñëw ci loolu en fait nedd ko bandum xëy na gars yi ñoo xamul exactement lu muy signifie mais su ma ko doon tekki ci wolof non nit bokk waaw mooy nit nitay garabam xëy na gars man tukulóor laa mhm. man tukulóor laa ci sama racine sama kii euh, li ma gëm man pël la li ma gëm li ma gëm bu fekkee ne waxuñu nit nitay mbokkam waaw mais nit ñun ñëpp ñu bokk la. Uh-huh. Sénégal koo ci gis. bu donc moo tax waruñu ko yóbbu fu mu wax yeegul président moo ko waxul noonu. tey bu ñu nee sëñ Modou Badou Doli ne Touba la dëkk nanga nag uh-huh. ma ma dem Golare. dëgg la man ah, léegi nag mm. li fi am mooy di ko génnee moo yooyu ak di ko dund nàkk-nàkk ci réew mi mm-hmm. ñii bëgg a indi ne séeréer lan ñii bëgg indi ne wolof la ñii bëgg indi yooyu moo wër te am Sénégal mm-hmm. feebar la boo xam ne bu fi tàmbalee kenn du xam fu mu jëm. nan la koy solutionné mu ni ñu koy sollicité mooy day tàmbale ci ñu ñu jiite réew mi ñooy war a njëkk dund lool man damay dëgg rek may xam nga ñun ñun ñi nga xam ne mhm. ñoo ko ngànk mhm. instant bi ñooy war a njëkk dund lu mel noonu mhm. population bi ñu dund ko ak ñoom fas yéene lii di am parce que am na yu bari yu ma yu ma jàngat waaw ah, maanaam tey ñu mel ne ki am problème bi tey euh, ne joolaa la beneen côté bi ci des am na loo xam ne bu ko wanee ñu ne léegi moom nekk gum nekk joolaa la mais loi yow mi doon wolof tukulóor wala ñu mën ci ñëpp la war a teg mhm. du ab joolaa la moo tax tey am na problème joolaa yi dañoo war a mën a jëg mhm. mhm. ah kii fi gis nga problème li fi ñu ngi indi lu mel noonu ñi réew ngi ci danger xam lu tax mu nekk ci exemple laa jox tey ku mel ni Ousmane Sonko moom bu ñu waxee ne joolaa la euh, mu ñu ne réew mi ëllëg mu ne bëgg na koo yor bis bu demoon ba war koo mën a yor tey exemple laa lay jox yow ci sa jëmmi boppam ne yor nga ko xam nga xam nga nit dana yor am réew. Mhm. bëggum réew di ko wut waaye bis bu demee ba réew mi tege ci taabalam ci loxoom li am ci àdduna bi mu jàkkaarloog moom jàkkaarloog li nga xam ne xam ne ni lii monde bi nii lay doxee bari na loo doon wax ak loo doon def loo xam doo ko mën a def. Mhm. parce que euh, société bi àdduna bi mooy dundee ci lu mel noonu. bu boobaa nag ça commencé pose problème. Mhm. ndax nag jàppal ne euh, euh, ay réew dañ koo xaaj àdduna bi dañ koo xaaj mu doon i réew. monde boobu nag dafa am loo xam ne moom la ñuy dund. loo xam ne lu fi nekkoo ab euh, ab président doo ko mën a jàngat. Mhm. la nga doon wax nag bu fekkee ne dem na ba nga xam ne amatul ña nekki wolof wala nekk leneen dañuy commencé génn waxoo woon ñi lii bu boobaa sa mbokki joolaa yi dañuy jëg de lu tax wolof yi nangam nangam bëgg a xeex kii wala bëgg a nangam. Mhm. kon yooyu dañ koo war a mën a dindi. ci mhm. réew mi bala muy torotaar. ni koy def nag ba dindi ko mooy amu fi woon. amu fi woon. mag ñi bàyyi lu ñu mag ñi bàyyi ñu ko fi woon. Mm-hmm. wax naa la léegi mm-hmm. tudd la Senghor. Mm-hmm. waaw Senghor. ba ko Sëriñ Fallou ñaanale ba ko Sëriñ Fallou kaw. Euh, euh, moo ku doon xëccool booba. dëgg la Mamadou. ah lan la doonoon. mooy président du conseil. lan la doonoon ci ci ci du julit. waa julit la. du julit la woon. lu tax. kilifa diine yu mag yi nekkoon ci réew loolu day wane ni sénégalais yi ñoom seen ci foofu. waaw kilifa diine yu mag yi nekkoon ci réew mi yëpp. lu tax ñu bàyyi julit bi àndoon ñu ci ëpp boog laay wax. du ñu ci ñu amoon doole. question éducation tamit am na. waaw mais éducation boobu bala may dikk kon sénégalais bi dafa am lu gëmoon. Mhm. mooy boo mhm. xasee ba ne laa laasana rek sénégalais ga. Mhm. comme man man sa mbokk la réew mi réewu teraanga la. ñun ñëpp dañoo war a jaxasoo ànd nekk benn mais yii ma gis mu commencé di génn par benn benn yooyu buñ ko toppee dana doon loo xam ne fa ñu jëm ci réew mi dem na ci ba ci wàllu diine ji ni ma la ko mën a waxee en tant que da nga daan dégg léegi am xaadim nekk fee wax lu bon ci kër maam alaaji Maalik am Maodo nekk fee wax lu ban ci kër Sëñ Tuubaa mhm. Mhm. ca est-ce que jàngat nga ne ñooñu ñi koy def sax man naam gëmuñu leen mhm. mais bëgg na ne baatu wolof boobu ñuy wax naan coppet ci bii rajax ndong ci bii bii na ko rajax dëgg la parce que réew mi leen bëgg a taal kon nag même ci waaso yi am na ci ñoo xam ni tey euh, euh, ña koy provoqué en général boo leen doo xool sax loolu intéressé leen mais dañ caa bëgg a jaar pour taal réew mi kon nag loolu war nañ ci jël ay euh, rawatina ki yor état xam naa ne presque sa temps jeex na Euh, peut-être euh, bu deux questions moo ñu war a dese euh, deux questions léegi ma bëggoon ñëw ci benn fait bu important boo xamante ne dafa am il faut ma laaj la ko mooy moment bi ñu toll nii dañu gis ne am na ñoo xam ne sax d'accord ñu woon ak Aly Ngouille Ndiaye mhm. ñu ne Aly Ngouille Ndiaye dafa war a dellu si mhm. est-ce que xalaatuloon ne le président Macky Sall dafa def de casting Euh, non seulement dafa dem ne dafay def fast track bàyyi euh, premier ministre mm-hmm, amatul mm-hmm. ñu pare si loolu mu génn mu jël euh, mi mi Touré teg ko de côté mm-hmm. indi Idrissa Seck mu pare si loolu génn ku mel ni Amadou Ba ñu pare si loolu mu génne ku mel ni Matar Cissé ñoo xamante ne au moins ci seen liggéey feesoon nañu daal seen liggéey te ci seen place ba nga xam ne am na liggéey yu yu mucc ayib yoo xamante ne defoon nañ ko ndax moom moo dañu àndoon ak moom depuis 2017 ou plus di liggéey ak moom est-ce que xalaatuloo aujourd'hui tey politiquement que ñooñu manqué wuñu la le le président euh, Macky xam nga mooy li may wax loolu nga wax mën naa nekk. Mm-hmm. parce que li koy indi mooy toujours da ngay am ci sa entourage ñoo xam ne. Mm-hmm. Euh, boo leen dégloo da ngay def erreur. waaw parce que ñooñu dañ daan dem au front mooy. Mm-hmm.

Mm-hmm. am na ci ñu mel ne Boun Abdallah Dionne ku ku gëm président la mm-hmm. ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye moomu ku mm-hmm. gëm président la ku mel ni Omar Youm ku gëm président la waaw Omar Youm ndeysaan euh, monsieur euh, Amadou Mimi Touré liggéey na liggéey bu rëy ci wetu président Amadou Matar Cissé it liggéey na liggéey bu ñoom ñëpp samay. Amadou ndax bëggoo ko ah, tudd dama ne Amadou Ba it. waaw nit la koo xam ne ku am njëriñ la woon ci parti bi. dëgg parce que am réew dafa am lu ko yoree de sëñ. soxna si fidélité. Euh, gis nga réew. ci mhm. président. loolu mhm. président moo ko moom wala ñi am yéene nekk président. Mhm. am réew li koy yore juróom presque boo koy seet juróom la. benn bi ci jiitu mooy fit. fit ñaareel bi mooy xam-xam. ñaareel bi mooy njariñ. lu am solo la nag baat boobu wax. njariñ mais que amal nañu njariñ. ma oui ma njariñ. ñetteel bi mooy yow ci sa jëmmi boppam engagement ci engagement def ñaari xaaj li ko la am. mooy boo waree engagé wax dara wala def dara nga def ko. waaye it engagement yi ci kaw boon bu loolu naree yàq nga retiré waat. Mm-hmm. loolu ñu ñu bari amuñu amuñu. beneen bi ko tegee ak ak bi ko juróomeel muy yërmande. Mm-hmm. lii mooy tonk pour nit. maa ngi ñëw maa ngi ñëw foofu am parce que bu toppoon gaa yi taal dëkk bi. Mm-hmm. loolu lépp yërmande ah man ah. ma ñëw foofu. ñi nga wax nag. nu mm. tudd leen ñoom ñëpp samay xarit la. ñu nekk ci ministre wala ñu ñàkk ko nekk damay assumer ne man président Macky Sall laay liggéey. waaye samay xarit la am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ànd ak moom liggéey liggéeyluñu ko nekkuñu ci lu du dëgg duñ jël kenn téléphone ci bu ñëwee ñu waaf ñoo ñee lan war a génne <laughs> waaye ñoom laa muy indi soos ñi ngi doon liggéey di may wax dëgg la ñoom doonte président moo xam parce que man toujours mhm. damay wax ne état damay am toujours lu may bàyyi mooy man man ma am information mais am na ñoo xam ne rensement lañu ñu am mhm. euh, man sama gëm-gëm nag ci sama gis-gis yàgg na maa génn fii ne am na ñoo xam ne da leen a war a dàq waaye man ña ma jàppoon ñoom la koy def ak ñi ko def bokkut parce que ñenn ñi dama koy wax bu bun Ablaye Dione génn na def ba ki dem ab sotti. ex premier ministre la naa ko ah taxaw na ci ñëpp xam na ne gaynde la ci wetu président wax bu dal ah, wax bu dal euh, Amadou Ba boobu nga wax ñëpp xamoon na ne ñi ne ci parti bi amaloon na la njëriñ ah loolu moom dama koy seede bu wér a wér ah bu ma ci bokkutoon it damay seede ne amaloon na njëriñ ñeneen mel na ne amal na ma njëriñ. mais sa xarit la woon waaw amaloon na njëriñ ñeneen. beneen bi ci des it Mimi Touré ci wàllu liggéey ak défendre ñëpp xamoon na da ko doon def. waaw Omar kenn nottil bul sama xarit sama xarit ah, la sama assur. ah mhm. relation bi nga xam ne moom lañ am. Mhm. man du nit lu may defal. Mhm. mën naa wax ne du ma def mënumaa wax ne nekk ministre ba jógee wala mu nekk directeur fa fal ma mais man xooluma loolu li ma xool mooy li may dund ak moom xaritoo gin am ak yëg gin am ak jàppaloo gin am kooku moom dama koy assumer ala kulli ali ali nguy njaay sama xarit la dama koy assumer bu ma jariñee bu ma jëriñu nit man li may jariñ suñu borom waaye doo xaar rek mhm. président Macky Sall lu ma ànd ak moom ci yàlla tudd mu war maa jariñ du ma jariñ dara maa ngi nii ñi ma ciy rayante ñëpp di ko rayante gudde ak bëccëg ñi ci rayantu di def seen i lobby ñu ngi leen ciy jariñ àdduna ak li ci biir waaye xam lu tax man. man de mën naa seede. waaw nga ciy def. waaw lu tax man. Mhm. ma nit ñi dañ def ba yàgg ne sëñ Modou lu tax muy continuer sax wala lii lu tax mu koy def dafa ñàkk fu la du mhm. ñàkk fu la damaa am gëm-gëm. Mhm. mooy damaa xam ne waaye waahidul xaar képp. mooy ki yor samay mbir. du président Macky Sall du kenn. yàlla yor samay mbir. ci ci aspect boobu noonu yàgg nga ànd ak président Macky Sall barki démb la def juróom-ñeenti at ci euh, bopp réew mi ginnaaw premier mandat bi mu defoon sept mu yokk ci yeneen ñaari at fu mu nekk nii ñetti at moo ko dese du ma la laaj ci bilan bi parce que da nga naan c'est positif mais ci ñetti at yi euh, ñu dëgmal ci yan poñ poñ nga yaakaar ni ci la war a gën a euh, jëmmal li nga xamante ni moom mooy liggéey bi bu ko defee Sénégalais mën cee gis seen bopp fii ak 2024. xam nga Lassana waaw ñetti at ko dese ci mhm. mandat bi ci mandat bi waaw daa am lu desaat wala. ah déet loolu moom cour du constitutionnel moo koy. waaw moo tax ñu ne ñetti at waaye dama ne man sama gëm-gëm laay gëm laay wax. sa gëm-gëm bi daal ñetti at a ci des. Mhm. ñetti at yooyu ci des nag li ma gëm ba ko mooy deuxième mandat bi ñetti at yi ci des li ma gëm ba gëm ko ah gëm premier mandat sax lay wax deuxième mandat. moom nee na du présenté wu. du deuxième mandat moom la. xam nga dafa am damay bañ ñu dugg ci loolu parce que li tax may bañ ko dugg moom man man na maa wax ne. Mhm. tey ci tey. Euh, du ma jëfandikoo ceebu jën mais est-ce que tey bu ñu toogee ceebu jën ba pare wala loi bi génne ko ba lu ci sama lu ci mën mënutuma ci dara xam nga dafa am loo xam ne nii nañ ko bàyyeeg sunu luwaa réew dañ ko tënk def ko ci ay kayit mu leer nañ muy conseil constitutionnel kon kooku nañ ko bàyyi jëf jooju. mais kàddu gi nag. président bu bëggee. wala mhm. bëggut wala ni leneen bëggut nañ ko bàyyi ak moom. bis bu demoon ba nga xam ne mu loolu dogal na ko ne war naa euh, euh, taxawaat nekkaat sampuñ dënam dogal nan ko. moom bu boobaa moom bu xoolee moom ci boppam ne moo bëggut bu boobaa mooy xool ci biir partem lu ko neex moom parce que nit ki nag mën na ne loi bi may na li nga ne bëggoo mm-hmm. waaye beneen bi ki des nag mooy bis bu ñu demoon ba loi bi maye ah li fi des mooy population bi mooy atte bu boobaa population bi lim liggéey bu ko bu bu nee ba tey soxlawaat nañ ko ah du te maanaam mu dem mu dem buñ ko soxla soxlawuti ñu xam ne soxluñu ko Ablaye Wade bi mu ko waxee nit ñi nanguñu ko woon bi mu demee ba waa indi ko na dafa war a samp ndëndam mais bi mu demee population bi ñoo gàtt kon waaw mais Macky Sall ngi woon ci ci ci ci loolu 23 juin ak ay 2011 euh, euh, euh, mm-hmm. la ñu ko la ñu commencé di xeex ak moom mu nekk ci loolu mënuma comprendre nit bi li nga waxoon ba ñëw ci nguur gi nga nekk kilifa nekk président de la république ñu lay génneel vaar di la génneel yoo xamante yow yoo yaa ko waxoon bu yàgg ba te defoo ko baat bu ma la wax de ban baat bu ma la wax léegi ni dama ne la. waaw yorum réew. waaw man nga koy wax. waa waaye bis boo demee ba yéen réew mi tege sa loxo. waa li li ni système bi di doxee. waaw ak ni mbir yi doxee. waaw lan kay xam man du ma ko xam yow doo ko xam foofu li may ñëwee. mais nit la rek dafa war a euh, respecter kàddu man dama bëgg nit ki mën naa respecter kàddoom waaye dafa am ay yoon yoo xam ne tey moom la am réew di tënk muy conseil constitutionnel. dafa am loolu day fekk nga laaj boo laajul conseil constitutionnel du àtte déedéet déedéet parti mën na ko bañ a laaj parti laaj ko non moom kay xanaa moom mooy cëgalu bu yëngu nag moom mën na koo bañ a laaj teewut foofu da mën na koo bañ a laaj mais parti laaj ko kon loolee bu bis buñ ca demee ba egg man damay bañee loolu wolof di wax sàkkam saaga yaakamtee xeex population baa ngi fi di déglu moom bu ko yoon mayee ne moom bu bëggut yoon ne nanga moo moo am waa parti décidé na ne loolee mooy am loolu kay nan. xoolal Aliou Ndao loolu kay nan ko bàyyi population. yéen wax ngeen fi ah, bi nga mhm. xamante ne moom la fi jëloon. teg ko eh, ci eh, boppu CREI bi moom génn na wax wax na ma euh, euh, keroog invité nañ ci benn télévision de la place. invité nañu euh, kii Ismaïla Madior Fall. Mhm. mu wax carrément ne moom waxoon na ne Macky Sall mënul nekk loolu Macky Sall waxaat na ko. ma ne. waa ba tey dafa am ñaari mbir yu ma lay wax. Mhm. bu dee Aliou Ndao moom bi ma ko gisee beneen mbir la ma jox <laughs> xam nga lu tax mooy lan. xam nga Sénégal dafa am ñaari mbir yoo xam ne nit ñi dañ koy bàyyi xel. am na sëriñ soo xam ne tey comme sama mbokki sëriñ si. dañuy politique ba pare di ko nëbbu na duñ politique. mais acte yi ni posé yëpp acte politique la. bokku ñëw man man dama ne damay politique. nit dafa am war a am franc parler franc jëf. absolument noonu mu amee nag ci sëriñ si. noonu la amee ci journaliste yi noonu la amee ci procureur yi noon la amee ci ñëpp. Aliou Ndao bu bëggee dugg ci politique ne ñëw dugg ci politique. dafa am yoo xam ne. waaye mën naa bañ a dugg ci politique di joxe xalaatam. ma ne Lassana li gën a dansé. même militaires yi commencé nañ di. waaw yow lu la jaaxal mooy. Ah, lu tax mu xaar ba léegi daal tax mu xaar ba tey jii. lu tax taay yëpp réew mi eggu ci situation yi mu egg waxu toog ba tey mu di ko wax. lu tax ba mu ci nekkee waxu ko. fii ma toll nag li gën a dansé mooy même affaire militaire yi sax mi ngi ci commencé am ñuy politique. tey ki tey ma wax la benn mbir rek mu yam Aliou Ndeye wax na nokk après corona nit ñi buñ ko dégg na après corona woon bu doon wax mhm. nañ ko dégg na léegi nii bëgg naa dugg ci reen politique bi il faut mu jaar ci yoon Sonko mii tey mhm. fan la nekkoon finance nekk inspecteur mhm. man mi di wax yow am na ay terrain yoo xam ne seqoon nañ ko ak yeneen i mbir xam bu wér xam naa bu wér mais mais mais mais mais lu leer la woon daal non maanaam ni mu demee mooy fii ci gannaaw hangar bi waa à l'époque dafa am ay mécaniciens yoo xam ne dañ faa amoon ay garage état bi bëgg leen a yëkkati. yëkkati waaw. ba mu leen bëggee yëkkati boobu mi ngi nekk inspecteur nekk de. Euh, euh, impôt et domaine fii sama xarit maam buy jaawane. mun am fa bureau ku ne wax ko ma Vincent ne fa. waaw Vincent Bidi. moo ko doon préparé dossier di ko ëpp moom bi mu yëgee affaire boobu man it ñooñu ñëw doon ay taalibe informé ma affaire bi ci ñu bëgg leen faa yëkkati ci duñ leen jox dara. ci terrain yi. Sonko moo nekkoon syndicaliste Euh, mécanicien yooyu mm-hmm. man ma nekkoon sëriñu mécanicien yi ñu topp kook état bi muy jamono ab Ablaye wadd ba nga xam ne léegi état bi pare na pour jox leen set terrain set terrain yooyu ma am ci benn moom mu am ci benn juróom yi ñu jox ko mas gi euh, kon da ngeen séddoo daal maanaam waaw ñu séddoo ñu séddoo moo tax ma ne la réew mii boo déggee ñuy wax naan ñuy ah. wax naan li may maanaam yéen lu waroon dem ci mécanicien yi moom ngeen jël ngeen seetloo déggoo li ma la wax man sëñ Modou Bara du Moustapha Mbacké boo demee domaine ci foofee fekk sama dur boo fa demee da nga fekk boo xam ne terrain boo xam ne soo ko te waru woon jëm ci yéen non ñun ñoo ko facilité ok parce que ay facilitateur la doon mhm. Mhm. moom muy nekk syndicaliste man ma nekk euh, sëriñ bi koo xam ne ñun ñaar ñoo ko doon dox mhm. ban ko doxee ba eggal moom dañ koo jox benn man ñu jox ma benn mécanicien yi jël juróom ma jaay leen ko muy deux cent et quelques millions ma jox leen ko. pour ñu déplacer foofu. kon pour wax ne la réew mii dafa am lu muy doxee ñun ñëpp xamante na ñun ñëpp xamante na ci pour te tey wan la la li nit ki di wax kon cela dire que aujourd'hui dafa am certains politiciens yoo xamante ni te euh, discours yu ñuy tenir nit ñi. bokkut ak li ñuy li bokkul ak li ñuy def kon dañuy nax population bi. may moo ñëw foofu parce que boo gisee ma wax la ne la. nit man damay damay dama gëm li ma xam ne lu ma wax lu ne ma naa tax wax ko mais li nga doon dikk léegi nii dama la ko doon tojal égal gu ma Sonko moom la nekkoon spectateur waaw des impôts kee nekk procureur ah, tey ci tey ñu ci bari ñoo xam ne nii tey ñu ngi nekk ci wàllu politique ay avocat la noonu ay lu ne ba ci ñun sëriñ si nekk sëriñ nekk ay politique ah tey ji yaa ngi gis capitaine Touré mais nekk commencé bëgg dugg ci politique hmm. lii mooy problème bi Sénégal kon bu nit ki jógee wax bul xool statut ba mu yor journaliste yi ñaata journaliste ñoo ci dugg ci politique kenn xamul ah. nekk am na droit nekk fi nga nekk ba jékki sa liberté wu yi ñuy toll laa wax. ñaata nit ñoo ci nekk ministère nekk di seere seen base ci bu njëkk ay journaliste ñëpp du leen déglu ñuy bind ñëpp du leen déglu ñu nekk seen seen carrière moo leen fa yóbbu ñu nekk seen bàyyi ci ci journalisme tey ñu ngi ci politique bi Euh, nekk ci benn ambassade nga. waaw nekk non loolu loolu promotion la. pour te non dama ne. ay hmm. journaliste lañ woon. yor ay kii yu mag ci dëkk bi. waaw ñooñu seen carrière moo leen fa yóbbu. waaw jeex na. Hmm. kon nag tey ab procureur bu génnee di wax nan xam ne carrière moo fa toll foofu la bëgg a dem waaye bu ko kenn déggee na ab procureur bu loolu wax la. ci wala na tey mu mer li ko Macky wàcce woon en plein en plein ba pare bëgg politique rek ay ay hmm. moo am na ci yoo xam ne ay règlement de compte la. a wax tamit. xam nga tamit yow del seetaan léegi mu ah. dugg ci politique bi. Ah. del seetaan li ma lay wax rek. <laughs> si yéen lay ñëw wala. Ah, kii kay du ci leen. li kay du mm. bi da xam jaar am na ñoo xam ne yoon la ñuy def. Mm-hmm. dañuy jaar fenn jaar fenn que ñu bari ñu fi wax nii. Mm-hmm. léeg jotee ñu jéem a làqatu. waaw am na ñoo xam ne làqatu woon nañu. mais bi affaire sonko bi jógee ñoom ñëpp dem nañu. non danoo daw amaat encore beneen. non xoolal danoo daw danoo daw bu ëllëgee bu lépp tegee taaloo rek ñu ñëw. waaw léegi dernière question bi parce que heure bi jeex na mm-hmm. mooy euh, fu mu nekk nii euh, démission cascade de démission yi ngay gis de part et d'autre mu ci seen parti parce que am na ñoo xam ne ne dem nañu te yéegu leen ko. Euh, xam nga. sans compter ñeneen. dama ne la xam nga ak waa réew mi. xam nga dana am lu ma la jàngatal. tey macha allah li ma lay jàngatal mooy. Mhm. instant bi ñu toll. de réew mi à bi ñu toll. <laughs> combi président moo war a jël ay engagement maa la ko wax. defaraat toogaayam. moo gën de. xool ñi nga xam ne. dañ koo am lu ñu koy porté mm-hmm. ca bu tàngee du daw dëgg la ñi nga xam ne ay lobby la di indi ak tasaare ko mm-hmm. ak dandale ko nit ñi parce que mm-hmm. man toujours dafa am ñoo doon tudd léegi nii ñi nga doon tudd léegi nii ay borom yi baas lan politique nekk ay kàngam kooku même boo ko dindee ci ministère it war nga koy déglu di ko seere dëgg la dégg fi may waxee ah, waaw waaw ah bu baax nit nit ki nag am na kàngam yoo xam ne ku la koy dàqale ku ne parce que man toujours dama am ñoo xam ne. ñi ngi ci biir est ñu ñoo xam ne ñi ngi ci biir. am lobby yi ni def. ak ñun ñi ne ci parti bi ñu war ñoo jàppale wala ñu war ñoo féete ci kenn fenn fi ngir ne ñëpp jotuñu ci président ñu ko tey defuñu ko ëllëg ñu ngi ci seen. wala sëriñ bi ñoom ñoo ñu ngi ci seen lobby. Euh, le président le regrette ñi ngi ci seen lobby. moo tax ma wax la ne la dafa am lu daloon feebar bu daloon PS. Mm-hmm. PS ban xëyee di daq kàngam ya ca nekkoon Mm-hmm. fa PS ñu mujj Moustapha Gis ñoom Djibaka ñoom. Eh, mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñu leen dàq fan la PS mujj. Mm-hmm. Ablaye Wade jékki-jékki am feebar boobu. di dàq. ñoom Idi Macky Sall Aminata ana fu fu mujj. maa la ko mooy. kon ba léegi si may wax yow président dàq bu kenn xëy na. am na ah ñooñu kay génne na non man non génne xam nga génne démission ñoom ñëpp ñu ngi ci biir parti bi ba fii mais ñooñu dañoo liggéey gagné seen base ñi ngi moo tax ma ne la ñi ngi ci biir parti bi waaye dama ne nit ki bu àndee yow occupé yenn fonction yi yi yi gën a nekk stratégie ci réew mi wàññi ko yor baasam kooku kenn du ko bàyyi dugal ci frigo baat laa la wax ne kenn waru ko dugal ci frigo mm-hmm. Mm-hmm. même bu tey bu na woon jël na la génnee na la ci ministre gi sax daa da ngaa war di bokk dangaa ngaa war di ñuy wax ak yow da ngaa war di jaabante di bokk di participer waaye frigo moom sama classe gi la ñuy dugal ci ay frigo. yow kenn sama classe gi ku ma dugal ci frigo. bis euh, ngi ñëw boo xam ne frigo ba dana kalaat. ma ne yow munoo dugg ci frigo. te kenn du ndax sa boo déggee ma wax la. dama lay jox exemple. Mhm. parce que ñoom xëy na ñenn ñi ci seen gis-gis jàpp nañ ne war naa xaj ci frigo moom lañ koy loo xajoo fa waaye sama liggéey moom laaju loolu. absolument ndax yow fu nekk dafa am ñoo xam ne dafa am ñoo xam ne boo leen xasee ba am ñu nekk ay kàngam Mhm. kenn du leen dugal ci frigo. absolument mhm. beneen bi ki resit mooy ñi nga xam ne tey heure bu tàngee ñi ngi jàkkaarloo ak nit ñi di la xeexal guddi ak bëccëg. Mhm. doo doo doo doo doo jël seenu saaku nga widdi ko. wax dëgg fa laa la wax de. parce que saaku bu bu bu taxut bu bu feesut du mën a taxaw. absolument beneen bi ki des ma di la wax ne ab commando bu entraîné am expérience. <laughs> doo ko dugal ci champ de bataille. jox ko fetalu kese gu amuti bal. Mhm. warloo fa la wax. Hmm. maanaam daf leen war a dooleel. loolu loolu moo amut looloo amul nag dëggantaan. moo gën muy mhm. dem jëlaat ndax affaire ah, ñi am doole ca euh, Touba. mais attention li ci gën a garaaw. Mhm. mooy dooleelu ñu ba pare di dooleel ñi leen di. wax lu ah, affaire am na doole ca Touba. ah, ah? am na doole ci Touba am doole ci tuba mais ba léegi si danoo xàjjaliwut sëriñ ak politique ñay def politique xam politique. di ay gore di am walante am gëm-gëm am pas-pas di daw ci terrain mhm. ñi nga xam ne ay leader lan dañoo jël seen mbubbum sëriñ bu ñu gisee ab sëriñ mu wax lu du noonu ñu xëy jàkkaarloo moom waxanteek moom parce que dañu xam ne sëriñ bi ci politique la ko teg mhm. bu ñu gisee maanaam nit ñi dem ku mer ñu dem di wax a yow di wàcc ci terrain bi su muy seen mbubbum sëriñ ñu leen fay tuumaal lu ne mhm. di leen fa wax lu nekk ngir jëmi Macky Sall ñooñu la président Macky Sall wàccukaay yi mu leen war a jox joxu leen ko fekk ñi ci seen i saal wan ne dañ koy jàppale bu génn jotee ju génn ne nii ci duñ waxante kenn du tonton kenn. Mm. ñu leen di dooleel ak di leen jox ay fonction bàyyi ko ñu ci des nit ki nag koo naan du ma la topp fa ngeen jëm dafa soriwul. Mm-hmm. loolu baatu wolof la it ma koy wax. dëgg la nit bu nekkee as gor am ay mbokk am ay nawle. Mm-hmm. mu bàyyi lépp di la défendre di la jàppale. Mm-hmm. mu nekk sa wet guddeeg bëccëg ba ñëpp xam ne sonn. boo ko sàgganee yaa ngi sàggane sa bopp. dëgg la lii mooy la fa am. Touba mën nañ koo gañe mais ñan fa war a waxal ak fan ko war a teg ndax boo xasee ba am kàddu sëriñ bi ca li gën a la am mooy kàddu sëriñ bi. Mhm. sëriñ bi taxaw na fii nekkul li ma lay ñaan du ma ko ñaan pour sëñ Touba demal ci sëñ Touba boole naa la moom. sëriñ Touba taxaw na fii ci màggal gi wan ko na ko li nga ma defal ak lu la ci mën a fekkel yaa teewul nga def ko. ca mhm. ñëpp xam na ne OMS ci feebar bi ba muy demee bi. Mhm. graawoon la ci li ma la wax ne système adduna bi noonu pays yi ci adduna bi li lëkkataloo. Hmm. Hmm. képp koy ñoom ñëpp dañoo dàq bépp rassemblement. Hmm. président teewul dafa bàyyi sa euh, sa euh, màggal gi am mu ànd ca ànd ca ak doxaleen. sëriñ bi taxaw xam loolu ndax sëñ Muntaxa boroom xam-xam la. bu weesoo batin bi. wan ko ne ko loolu nga ma defal li nga xam ne mënu koo ñàkk am murit lan la mënut a ma ñàkk muy ndigalu sëriñ. ndigalu sëriñ bi lan moo ci jiitu màggalu Tuubaa. muy sàttale ko suñu borom. léegi bu sëñ bi fi mu waxee ton bi waxee wan ne ko li ma munta ñàkk mënuñu koo ñàkk nga nongul ñu ko ànd ceeg ñun xam nga lu baat boobu da fort uh-huh. comme que nag moom am na ndigalu sëriñ bi la ci des nag mooy mu xàjjale politique ak sëriñ uh-huh. ñeneen sëriñ nan doon sëriñ nekk xaritam yem ca ñii def politique mu jàppale leen def politique man ñaari casquette laa boole boo ma uh-huh. fekkee ci terrain ba damay jànkonte lu nekk ñu may wax lu nekk may dégg lu nekk ngir jëmam loolu wóor na ma. waaye nag ku am fulla laa. fulla ji nag dafa am lu koy tënk. mooy su ma àndee yow damay dem ba jeex. li ci des nag dama koy bàyyi population bi. Mhm. absolument léegi euh, sëriñ bi temps bi nga amoon jeex na. Euh, kontaan nañu torop si li nga ñëwee ci émission bi xanaa di bàyyi di la bàyyi nga tàggoog Sénégalais yi la doon seetaan. maa ngi sant ñëpp. di leen sant sant la soxna si ngay sama wëllër di sant laasana mhm. sant borom kër gi muy El Hadj Seck soxna Marème Marème Waake mhm. euh, moom it di jigéen ju baax donte xam naa jëkkëram kiw ñu ko waaye maa ngi dégg lu baax li muy def ci wetu jëkkëram dëgg la ku baax la mais mhm. di wax na it ñëpp ñi ñu doon seetaan maa ngi jéglu ñëpp xëy na du ñàkk sama waxeen ak wax ji am ñoo xam ne xëy na xaw na leen a kii waaye nag lépp rek suñ gëm-gëm la ak suñ pas-pas képp koo xam ne jàpp na ne wax bi am na fu mu la féete wala tooñ naa la ci maa ngi la ciy jégalu du tooñ sax waaye sama gëm-gëm la maa ngi la ciy jégalu di jégalu it mboolem Sénégal yi ñi ñu doon déglu ak nit ñuy déggee ak déglu parce que dégg dafa am ak déglu kon maa ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf kon nag euh, ñu ñem euh, euh, tout de jël dem benn page publicitaire dellu ak suñu deuxième invité monsieur Sène jongante ci wàllu taar ci melokaan yu set te sell lu am solo la ci àdduna bi ndaxte bokk na ci liy jaay ak yëkkati xar kanamu réew ci biti su ndam dikkee comité national Miss Sénégal Nouvelle Vision moo yeyoo liggéey boobu nag looloo tax mu doon sàkku ci quatorze régions yi nekk ci Sénégal ngir kenn ku nekk tànnal boppam ñetti candidat yu bawoo ci biir goxam ndax ñu mun a bokk ci jongante bi ñuy amal ci kanamu àttekat yu xarañ yi ak ci kanamu askan wi seetaan

région bu Louga ak bu Ziguinchor tegu ci dimanche 28 mars région de Tambacounda ak bu Sédhiou doog a ñëw naka ngeen di voté su miss yi di défilé ak tontu ci laaj yi leen di laaj da ngeen di def miss tekki numéro bi ngeen bëgg a voteel yónnee ko ci 24 100 mu représenté 50 pour cent du vote public yeneen 50 pour cent yi ci jury bi lay jóge mbokk yi comité national Miss Sénégal Nouvelle Vision ak i partenaire am yi ñoo leen di woo ci jongante bii une émission 100% femmes oui tey ci rubrique yëpp nag. instant yi moom sénégalais yi dem nañ ba xam ni que made in Sénégal bi. baax na qualité la te rafet na. la rubrique kii kan la. Euh, réalisation dafa nekk benn processus de fabrication boo xam ne day tàmbali ci idée originale bi ngay am mooy ni sujet bi euh, sujet boobu nag dafay jaar sur plusieurs étapes. vous n'obligerez pas Flore se marier si jeune pas plus que vous n'avez réussi avec moi. tiens mais c'est ma fille ingrate qui est de retour. rubrique découverte tey nag ñu leen di yóbbu ci village bi nga xam ne moom mooy Diokhul. Diokhul mi ngi ci région Louga département Kébémer. arrondissement de commune du Diokoul seen rubrique Zoom dañuy daal di dalal ki nga xam ne moom mooy Zahra Iyane Thiam. film bi ma bëgg waxtaan tey mooy le mandat. xabaar bu neex laa indaale benn mandat. mandat. waaw benn mandat. tey nag suñu parti invité dañ fa dalal benn wala ñaar waaye dañ fiy dalal benn bande boo xam ne nag c'est composé exclusivement de femmes. voilà ñu ngi ak suñu deuxième invité euh, monsieur Amadou Sène Niang euh, dinañu wax euh, ci lépp loo xamante ni ci rapport locale yi euh, emploi des jeunes dinañu wax ci acte 3 de la décentralisation comme loolu daf leen soxal dinañu wax ci lépp si loolu donc dañuy nuyu suñu invité di ko sargal di la remercier si li nga ñëwee ci émission c'est-à-dire jërëjëf salaamaaleykum Fabienne ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay merci ku ku yàgg représenté Sénégal nga merci on est très heureux que yaa ngi mm. bay sa si Sénégal si beneen anam aussi yàgg nga ko def yal yàlla sàmm la amiin di nuyu Lassana mm-hmm. xamante ni moom aussi on le suit mm-hmm. muy def yu am solo nuyu téléspectateurs yëpp mm-hmm. si profito di ziar sëriñ bi fi jóge léegi dëgg la kilifa lañ nee na ma léegi sëriñ Cheikh Thioro Basirou Mbacke. Mhm. bi nga xamante ni si moom laa jokku. waxtaan nañ ñoom ñaar. Mhm. wa kàddoom rafet na lool ñu ngi koy rafetlu noonu rek la mënoon deme sëñ Cheikh coro si boppam daf maa faral di wax. Mhm. ne ma il faut pacifier l' espace public. maanaam euh, dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. dañ fi war a samp jàmm. donc ma koy nuyu di ko jox wàcc waayam di jéggalu sama ñu bëri dañu jàppoon ni 11 laay démarré. ah mais j'espère que ñu ngi toog di seetaan. waa mi baaxoon na si ndax euh, li am léegi nii ma suivre ko. dëgg la am na solo lool. merci euh, ni ñu ko defee rafet na. merci jërëjëf merci beaucoup. donc euh, man dama bëggoon dellu si waat si loo xam ne dafa lëndëmal suñu xol suñu xel ñun ñëpp muy le système judiciaire je dirais le système judiciaire à la baax quelle solution pour l'état de droit ak indépendance su justice yow noo ko gisee parce que euh, koo gis rek euh, côté boobu mu ngi koy jooytu. jërëjëf euh, damay tàmbali si fàttali. Mhm. si état de droit la ne. Mhm. état de droit boo xamante ni comme état moderne yi am yëpp dafa am ñetti pouvoir ñetti kuréel yoo xamante ni ñoo ŋànk dëkk bi muy. assemblée nationale bi nga xamante ni muy tëral yoon euh, di def loi président de la république ak gouvernement am di doxal li nga xamante ni mooy politique bi mm-hmm. am justice bi nga xamante ni mooy saytu ndax yëf yi tegu na si yoon si ñit xalaat état moderne nu muy taxawee dañuy ñetti ñooñu dañuy am war a am séparation mm-hmm. séparation des pouvoirs ku si mm-hmm. nekk mën di dogal di doxal te keneen ki du la mën a influencer. Mhm. Euh, loolu nag dañ koy construire euh, euh, par exemple si tu prends l'Assemblée nationale président am na possibilité di sudul ko ñoom aussi mën nañ def motion de censure jëmale ko si premier ministre même léegi premier ministre ama am amatul day am mhm. un système d'équilibre mhm. suñu justice nag li ko li ko li fi am mooy c'est vrai si yenn aspects yi am nañ indépendance Mm-hmm. mais il serait bon euh, euh, à l'instar de l'Assemblée à l'instar du pouvoir exécutif ñu gën a affirmer seen indépendance mm-hmm. en quoi faisant par exemple euh, ñuy wax souvent ne euh, li tënk magistrat kuréel gi nga a mag si magistrature mm-hmm. euh, président moo ko jiite moo loolu même si on di c'est le premier magistrat de la République loolu mooy loolu mooy li si xaw a jaxasoo ndax dafa nekk ci pouvoir exécutif ñëw nekk ci justice nekk seen président mhm. façon yooyu lañuy ñuy réformer bu ñu ko réformer mhm. li nga xamante ni mooy eh, ñetti kuréel yooyu dinañ gën a gis seen indépendance mais beneen bi mooy kenn ku nekk ndax assemblée dañu am seen po pouvoir mhm. mais lu jógee ci pouvoir exécutif bu ñëwee day day day jàll depuis waxuma régime bi depuis tous les régimes ça a été toujours comme ça euh, beneen bi mooy initiative loi président da ko am ak député yi mais ñaata depuis 60 ba tey 1960 ba tey ñaata loi la ñu te mu jógee ci député yi. ay propositions de loi yi jot a am. Mhm. ça touche la la politique. amendement Moussa amandement amendement ñaajaar mhm. seen mhm. yooyu la donc du lu jëmale askan wi te député yi yoon constitution jox na leen possibilité ñu def initiative loi donc problème bi c'est un problème de système oui Mhm. mais c'est aussi une un problème de responsabilité Absolument. individuelle et personnelle voilà mhm. je voulais aussi wax aux téléspectateurs du ñuy seetaan que vous êtes euh, euh, expert en décentralisation expert en décentralisation et que vous êtes aussi euh, à la mairie vous êtes conseiller municipal à la mairie de de Rufisque waaw moo tax mu bëggoon la laaj élection locale yi ñuy renvoyer une énième fois à qui profite Euh, le le le le le le report ak où se situe le problème est-ce que dañuy yàpp la population wala parce que man je ne peux pas comprendre que depuis quelque euh, temps depuis presque léegi mu def deux ans. ñu ngi mhm. reporter euh, ñu ngi reporter les élections est-ce que loolu tamit xalaat nga ni c'est le nañu askan bi seen cër mooy respect. est-ce que jox nañ leen ko bu ñu bu ñu bëggaatee encore jëlaat encore euh, kii bi euh, reporté ko ba deux mille vingt deux je pense. Hmm. jërëjëf laaj bu am solo la xam nga euh, man conseiller laa comme ni ko mhm. waxee maa ngi ko nekk depuis quatre vingt seize. Mhm. mais musuma bokk en tant que élu fu may organiser élection. Mhm. organisation élection muy élection présidentielle. muy élection législative à élection locale. état bi moo am responsabilité bi. Euh, damay mën su aller plus loin. dama yaakaar ni dañu fullaalul élection locale. Mhm. ndax euh, du léegi la loolu am. 1980. Mhm. année 80 yi ba léegi chaque chaque fois ñu dox amul mhm. benn yoon élection locale. ñu wër mën ñu egg si cinq ans yi ñu organiser. bi ñu jógee 84 élection yi mu ngi waroon jeex 89 mandat yi ñu ne affaire mauritanienne dañ koy dàq ba quatre-vingt-dix. waaw quatre mu waroon jeex quatre-vingt-quinze. ñu ne dañuy def réforme bu ñuy oowee régionalisation nañ ko yóbbu ba quatre-vingt-seize. Mhm. quatre vingt mu waroon jeex deux mille un président Wade di doog a ñëw. Mhm. daan man beneen gis-gis laa am ci décentralisation. Mhm. damay indi provincialisation. may leen ma ba deux mille deux. ñu may ko ba deux mille deux. deux mille deux mu waroon jeex deux mille Mm-hmm. ñu ne organiser nañ en 2007 élection présidentielle mm-hmm. élection législative ñetti élection mënul am mm-hmm. dañuy yóbbu mbir mi ba 2008 ñu egsi 2008 ñu ne mbënd mi dañuy jël xaalisu élection locale yi ñu def ko si plan jaxaay yi nañu fàttali ko plan jaxaay bu baax ñu ne kon du mënati nekk 2008 nañ ko yóbbu 2009 bi ñu egsee 2009 mu war a jeex mars 2014 président Macky egsi na daan nañ ko may 3 mois boobu mooy dàq bi gën a gàtt ñu may ko trois mois juin ñu organiser mu waroon jeex kon 2019. Mhm. dàq nañ ko ña ñetti yoon. 2019 ñu ne deux mille mhm. mille 2020 jot ñu ne au plus tard le 31. Mhm. mars 2021 2021 2021. léegi je crois pré conseil des ministres jël nañ. adopté nañ projet de loi bi day dem assemblée. pour ñu dàq ko ba deux mille ndax le le problème donc qui se pose c' est que au même moment. saa su mandat président jeexee. cinq ans wala sept ans ñu organiser ko. Mhm. saay su mandat député yi jeexee cinq ans ñu organiser ko. Mhm. kon sama problème mooy état. Mhm. je parle pas du régime actuel. je parle de l' état tout régime confondu. ñoo fullaalul. élection locale et loolu sa pose problème. day poser problème ndax toujours dinañ sàkku lay lay moom du jeex. toujours dinañ bi yoon dañ na lan la ñuy wax révision risque électorale déwén dañuy utaat beneen lay. te Fabienne Sénégal. on organise trop d'élections. Trop. Uh-huh. Et l'intervalle moyen mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. moo tax war nañu vraiment rationaliser calendrier bi mais laataa ñu yegg ci loolu est-ce que mbir mi tamit du maire la neex parce que tey jii nii am na maire yoo xamante ni leer na leen ni bu ñu demee élection gars yi dañ leen di wàccee fal keneen est-ce que du ñoom la neex moo tax ñoom xeetu report yi nii daf leen di daf leen di arrangé mën na leen neex mais ñoom du ñoom ñooy organiser élection. Mhm. c'est un problème que aussi du ñu jug exiger ko parce que tey jii nii bu fekkoon dañoo yegg. Mhm. mënul organiser élection. Mhm. état mooy organiser élection. donc état bi la ñuy interpeller. état bi la ñuy interpeller démb am na télé bu ma oo wala xaw ma rajo ne ma est-ce que dinañ am légalité ñoom seen i actes yi ñuy posé. seen actes yi am légalité. mais est-ce que am nañ légitimité nag léegi nag. la légitimité mun na am mun nañ ko écorner. bu baax a baax. parce que juróomi at lañ leen joxoon mhm. mais seen légalité moom dara du si wàññeeku mhm. parce que bañ leen falee si premier jour pouvoir yi ñu amoon ak sañ-sañ yi ñu amoon moom la ñuy am ba keroog ñu mhm. dootu ñu nekk ay élu loolu moom mais problème bi mooy askan woo xamante ne par exemple dafa doyal ci maire am bëggoon élection ñëw pour mu wàccee ko teg fa keneen euh, loolu rapport bu xaw a jafe lay doon. ci diggante maire boobu noonu il faut que askan wi interpeller état bi. loolu li may gëm man mooy. par rapport wàññi élection yu bari yi Sénégal dañu war a faxe ba si benn at ñu def élection yëpp. Mm-hmm. locale législative. Mm-hmm. présidentielle. Mm-hmm. ñu organiser ko ñi ñuy Amérique benn bés la ñuy voté ñëpp. xoolal Abidjan rek. mu jeex. ñu am juróomi at ñu liggéey. mais yaa xayti mu laan problème yi am si Sénégal problème yi am si àdduna bi exigence de travail de production am. enjeu yu bëri am ñu nekk dix huit mois yu ne wala dix neuf mois yu ne ñu mhm. oo ñu si élection campagne électorale permanente mhm. loolu mhm. moo tax Sénégal du jëm kanam dëgg la da ngay xool rek Abidjan bi ñu paree def seen élection kii novembre la bi ñu paree keroog euh, législative voilà législative bi lañ si teg léegi ma bëggoon ñëw aussi ci acte trois de la décentralisation mu nekk loo xamante ne yow daf la soxal torop parce que bi ñuy préparer émission bi ñu ngi koy wax yow ban bilan nga si def waaw acte trois bi réforme la comme réforme yi am ci décentralisation yëpp. Mhm. dañuy changer le cadre juridique. Mhm. Euh, cadre humain cadre financier. mais man maa ngi bokk ci benn kuréel boo xamante ni c'est au niveau de la sous-région. Mhm. dañ doon def benn webinaire man maa ko animé ñu ne naa wax. Ah expérience au Sénégal. Mm -hmm. conclusion est que Sénégal. amuñu politique de décentralisation. loolu mooy suñu problème. lu tax nga les régimes ont fait des réformes. Mm-hmm. une politique et tu ne verras nulle part. Mm-hmm. politique. Mm-hmm. nationale de la décentralisation au Sénégal. amul xanaa kon loolu mooy pilotage à vue la ñuy def. kon président bu ñëw ak réforme am lu tax ñu oowee ko acte trois. Senghor parce que ñi ko jiitu woon def nañ. 1960 commune lañ fi fekk y avait 34 communes 34. ñu dem ba 72 mu ne day def communauté rural premier acte bi mu ngi noonu. 96 mhm. damay tëb lu bëri. parce que du mhm. fi xaj. absolument 96 président Abdou Diouf fekk 2092 annoncé na ni damay def damay yenneeku parce que jafe-jafe yi bari na. Mhm. damay yenneeku ay sañ-sañ si gox goxaan mu ñu def réforme def neuf transfert de neuf domaines de compétence mhm. créer la région moo tax réforme boobu régionalisation lañ ko ooyee woon mhm. président Abdou Diouf bi muy Abdoulaye Wade bi mu ñëwee 2000 dafa ne damay teg provincialisation coow li bari mhm. lool mu denc ci tiroir 2010 mu jël ancien maire mu du Diop def ko ministre de la provincialisation loolu mu jur sotti président Macky Sall daal di ñëw daal ne man acte trois laay def en d'autres il n'y a pas de politique nationale de décentralisation planifiée ñu xam lan mooy décentralisation ban mission ak ban rôle la ñuy jox le niveau territorial nan la ñuy conjuguer nos mm-hmm. au niveau national ak les dynamiques locales mm-hmm. les l'ensemble des parties prenantes mm-hmm. ñu mën a promouvoir le développement ñu am ko de façon nette et claire loolu amul Sénégal maintenant acte trois bi nii mu ñëwee nag moom si wàllu boppam indi na ay innovation mhm. mais indi na ay problème yu bari ñaar rek laa si wax mhm. benn bi côté xaalis bi la waaw yokkuwul dëgg la fonds euh, euh, euh, yi kii na président ma profito di wax ak mhm. ministre de la décentralisation na bàyyi di wax ni fonds de dotation yi yokku na ba ñu foog ni li yi doon réclamer état bi satisfaire na ko muy Umar Gueye ñu bokk dëkk Tëngéej Euh, ma koy nuyu au passage. ndax euh, euh, bi ñu état bi yennee ko ay sañ-sañ jox ko maire yi. mu juróom-ñeent yi dañ ko ne loo si daan def yëkkati ko nga jox leen ko. ah parce que maire yi amuñu dara. amuñu ñu ne fonds de dotation lay doon. ak fonds d'équipement ñu ne cinq virgule cinq pour cent. TVA yàlla gis nga butéel bii nii tegu. boo ko jëndee cent franc da si dañ si teg dix huit franc. muy. TVA bi. Mhm. loolu la ñuy dajale muy TVA Sénégal. Mhm. xaalis boobu yëpp bu ñu ko dajalee. cinq virgule cinq pour cent lañ siy jox mairie yi sédd leen ko. Mhm. pour dimbali leen si yan bu bees bi leen yan. loolu nag mairie Sénégal depuis quatre vingt ba tey dañ ne dafa tuuti président ki demoon jam ñaajo dajeeg maire yi en deux mille dix neuf ne pare na pour yóbbu ko dix pour cent. bi mu dajewaateeg ñoom le vingt deux octobre bii passé mun la mun leen maa ko waxoon maa ngi continuer di ko wax mais dugal leen si li ma leen di jox. PUDC PUMA affaire yooyu ma ne ko mm-hmm. dit président yaa ngi dellu gannaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. donc malheureusement le ministre il continue et persiste que ni yokku na fekk li ñu am ci TVA bi moo yokk volume bi. moo yokku c'est pas a bougé. bu ñu amoon par exemple cent milliards cinq virgule cinq milliards la ñuy am ci TVA bi jëmale ko ci mairie su ñu amee deux cent milliards ah. cinq virgule cinq pour cent yi day nekk onze milliards. Mhm. kon yokku bi si li ñu am si TVA moo yokku mhm. mais taux bi yokkul bu doon dañu def 10 pour cent mhm. kon dañuy am vingt milliards foofu la différence bi nekk donc problème financier dañu am ay gàllankoor yu bëri ndax au niveau africain ñu ngi dépenser si benn citoyen par an euh, cinquante dollars vingt cinq mille au niveau du Sénégal si chiffre ADM laay wax agence de développement municipal mhm. on est à douze mille six cent cinquante francs maanaam xaaj bi xaaj bi parce que les mécanismes de financement du développement dañ ko war a xool mhm. euh, loolu dafa nekk problème beneen bi si wàllu euh, ressources humaines mhm. maa ngi jugee ak euh, sama xarit mu Njaay Cissé yebaloon ma géejawaay ñuy waxtaan ma war a former citoyens yi si monitoring dépense sociale maire bi ci introduction bay di sëy mu ne suñu problème mooy amuñu ay cadre mhm. waaw ñu wax problème mu emploi des jeunes mhm. Mhm. xam nga ñaata emploi la ñu am ci cinq presque six cent collectivités territoriales quatorze mille sept cent sept mille yi Dakar lañ dëkk Pikine Thiès Guédiawaye ak Rufisque et on n'a pas un ratio cadre maanaam ay ndaw yu xoole ñaata ñu tax gars duñu jël duñu jël seen employé dem former am compétence donc euh, fonction publique territoriale suñ ko appliqué woon tey li gën gaa néew dinañ créer trente mille mooy fonction publique locale dinañ yokk ndax maire yi ñan ñoo fa ne kuy def état civil remplir absolument alors que la solution par rapport à l'emploi des jeunes je le dis ici. dafa am lenteur administrative. oui même au niveau des mairies. à parce cause de loolu mhm. Mhm. y a un problème de compétence. absolument y a de compétence sans transfert de fonds. donc euh, euh, déjà varié wuñu métier ya fa ne. y' a mhm. pas de planificateur dans les mairies. y' a pas de fiscaliste y' a pas de sociologue. aménagiste amu fa. évolué wuñu daal boo tukkee si àdduna mais dëkk yi daaxuñu ay néeg de France daaxuñu ay néeg. États-Unis daaxuñu xam nga lu ñu daaxale ay mbedd. loolu nag collectivité locale yi ñoo si am rôle bu ëpp solo bu ñu si war a def mais boo amul ay compétences mhm. yu doy pour régler ko or tous ces jeunes qui sont formés mmh. dans les différentes écoles de formation professionnelle peuvent s'ils sont bien recrutés ñu def fonction publique locale bi améliorer le statut de l'agent municipal mmh. ils peuvent contribuer à promouvoir le développement Absolument. territorial. tey jii réforme boobu yan correctif lañ ci war a andi parce que dañoo waxoon ni peut-être président euh, de la république lu mu ci jublu woon mooy dooleel euh, communes yi ba ñu mënal seen bopp euh, ba yenn yi xëy na dinañ ko mën a solutionner te duñ yegg au niveau au niveau central te yan correctif lañ ci war a mën a apporter ba li nga xam ne moom la ci jublu mu am ko. ñaari yoon yi ma wax finance ak ressources humaines. absolument loolu rek la jox leen xaalis bu ñu formé bu joxee xaalis jël ndaw ñi. Mm. bari nañ xam nga maire yi soxla na balekat. te technicien de surveillance la dëkk day foo rafet donc kenn waxul ni nañu jël cadre yi rek ax ñuy jàng mais mënuñu tamit développer Sénégal ci mairie yi te duñu jël ñooñu il faut ñu jël leen donc lii tax ñu jël leen mooy promouvoir mm-hmm. la fonction publique locale ñu ngi ko voté 2011 ba tey mettre guñ ko en œuvre ndax li état bi bëgg mooy na ko mairie te keroog ministre bi mi ngi doon wax naan qu'elle est effective elle effective parce que dañ ne nag mairie bu ne bu ko mën na ko def. Mhm. waa yow bu dee dañ la ne fonction publique bi dañu war a recruter ay cadres fay leen lu toll ni li ñuy fay fonctionnaire état. Mhm. bu boobaa soo bëggee mairie bi jël ko mairie bi wax naa ne léegi amuñu xaalis. Mhm. amuñu xaalis da ngay supporter le coût. de cette réforme là. or muy acte trois muy réforme fonction publique locale état bi nanguwul supporter coût bi si war. donc il faut que bu ñu bëggee état bu bëggee mbir yi oyof ci moom. dañ naan moyen d'état mieux d'état. absolument mhm. donc bu bëggee affaire bi yomb si moom. Mhm. nag jël lu bëri jox ko gox goxaat yi et c'est pourquoi je dis. Absolument. que la solution elle n'est pas nationale. Mmh. est locale. Mmh. elle pas nationale. on peut créer beaucoup d'emplois au niveau des collectivités territoriales. si et seulement si. véritablement état bi nangu na. voilà bàyyi ay affaires yoo xamante ne léegi dama bëggoon ñëw ci suppression des villes de Dakar telles que Pékin. la euh, Rufisque waaw. moo nekk si gannaaw en fait. ah dafa mel ni bàyyi nañ ko de objectif bi ah, ah ni bàyyi nañ ko déggatuma mm. leen ñu wax si. Mm. man je crois ñëw naa fii seen télé bi. di mm-hmm. j'ai fait beaucoup de télé. Mm-hmm. pour wax ni c'est pas pertinent xam nga. Mm-hmm. Euh, mm, le ministre moom il persiste ici. mais au moment où il dit bi mu ko waxee. teguñu si deux semaines mu fotelu à l'Assemblée une loi boo xamante ni. ils ont prévu la ville. Mhm. ba mu gisee ville ci seen loi bu bees bi bi nga xamante ni euh, indi nañ ko après coow li. Mhm. ci laa ne kon ñoom bàyyi nañ. Mhm. ndax mais ils persistent ici donc je me des questions est-ce qu'ils sont logiques dans leur démarche. Euh, ville yi moom allah kulli alin question bi ma leen laaj et je crois que wax ji wax ji nañu tontu ci loolu la ville est une mutuelle intercommunale. intercommunalité mooy coordonnée. ku nekk xam na lan lay jëriñ maanaam maire yi ci suuf lu ñu leen jox jox euh, dayoo euh, euh, responsabilité dina am ay problèmes yoo xam ne dañ koy bokk. Mhm. jox ñu benn exemple concret ci Rufisque bi nga xam ne foofu nga dëkk. éclairage public. Mhm. bu ñu jëlee route nationale bu Tëngéej nga jóge juuti ba à l'entrée jëm ba Bata bu fekkente ni dañu ne commune bu ne na ko yore. Mhm. commune bii am xaalis bële amul xaalis. ñu ne éclairage public bi ñoom commune bi am xaalis day leeral partem commune bi amul xaalis day toog xaar mhm. la ville donc se charge de gérer des problèmes yi nga xamante ni commune yi yi mu nekk ci biiram mën nañ ko bokk de façon harmonieuse mhm. mu ngi mel ni boo jëlee boulevard Blaise Diagne bi jëm Wakaam route de Wakaam bi nga ni commune bu ne moo ko yore waa commune Médina tolloowul la commune Plateau xaalis tolloowul ak commune Fass Colobane xaalis ak euh, Mermoz Sacré-Cœur ba Wakaam tolloowuñu xaalis mm-hmm. ñii dañu am milliard ñii amaguñu milliard ñu ñii ñu ngi si deux milliards ñii ñu ngi si huit cent millions mm-hmm. et cetera donc boo nee axe boobu mairie bu ne na ko géreel boppam da ngay poser problème on confie ça à une structure intercommunale mm-hmm. boo xamante ni yenn problème yi comme mbalit ni même bu fekkee état bi da ko nanguwaat ñoom dinañ ko mën a looloo am si àdduna bi yëpp boo ko supprimer nag ñoom état bi waxaguñ ba tey di coow li bëri yëpp lan mooy remplacer loolu département bi ñuy wax beneen mission la am beneen façon mission la ndax niveau yu bokkul mhm. département moo nekk niveau intermédiaire entre l'État et les communes la ville intercommunal la du niveau département. léegi foofu aussi inégalité amu fa parce que boo xoolee ville ville yi ñu ngi koy wax waaye cinq la rek ci euh, Sénégal lan moo tax kon ci yeneen gox yi aussi amul ville boo xamante ne moom mooy assurer xeetu coordination boobu noonu ngay wax. ville ne dañ koy créer fu ñu gis ay communes yu taxatloo Uh-huh. pourquoi pour ñu mutualiser seen compétence pour ñu boole seen doole waxuñu si loi bi ne dëkk bii laax dëkk bii la président uh-huh. moo jël lubam lub mu niit territoire Sénégal mu xool fan la fekk ay communes yu uh-huh. dakaar pikin Pikine Guédiawaye Thiès rek lañ ko fekk en ancienne commune d'arrondissement yi ñu dippi def leen commune moo tax mais mais boo demee je prends n'importe quelle zone je vais à Kaolack Kaolack Euh, mënoo même si man dama bëggoon ñu daggat Kaolack def ko ay commune créer ville seen biir. Mm. gouverne très bien que gouverne très près Kaolack dafa yaat mm. Touba dafa yaatu nit ñi bari nañ. Mm-hmm. dëkk bi yaatu na nañ ko daggat def ay commune comme Paris Touba gis nga ni mu bindoo comme Paris dañ daggat ko def euh, la ville de Touba. ndax Touba du ville. Mm-hmm. au sens du de l'acte trois laa mm-hmm. bëgg a waxe quoi. Ndar aussi Ziguinchor noonu donc loolu cette réforme là dañ ko war a gën a moo moom laay wax rek dañu amul politique de décentralisation gis nga régime bu ne ak li muy daggate mhm. ce qu'on appelle le gerrymandering gerrymandering mooy eh, politique d'aménagement du territoire booy soubassement bi yëpp élection la et malheureusement Sénégal depuis 60 ba tey bu ñuy daggat c'est sur la base d'une logique politicienne mhm. et loolu mooy suñu problème donc mhm. il faut aller vraiment man je je lance ça vers une politique nationale de décentralisation coow li bëri na mhm. mais mhm. amuñu benn politique de décentralisation comme ni ñu amee yeneen politique de l'assainissement am politique si yeneen domaines yi mhm. secteur u développement territorial amaguñ si amaguñ si politique léegi dañu bëgg dama bëggoon ñëw ñu waxtaan un peu si démocratie sénégalaise nga xamante ne woon elle était euh, vraiment si benn kii boo xam ne ñëpp dañu ñëwee woon euh, suñu stabilité euh, démocratie bi ak yooyu mais est-ce que xalaatuloo ne fu mu nekk nii dafa reculer dafa perdre un point ba pare reculer et puis bëggoon nañu xam aussi lan moo tax à qui la faute. waaw man eh, Fabienne peut-être waxuma ni dama jiite parti. Mhm. ndaw laa gaa par rapport ak yenn mag ñi ndax nekkatuma xale lool. Mhm. <laughs> mais am tee naa jiite parti depuis deux mille ba tey deux mille un ba tey donc am na lu bari lu ma fekkee. laataa loolu maa ngi woon si politique bi. Mhm. Euh, li may wax ci démocratie bi damay wax ak président Macky Sall. Mm-hmm. moom la ñu wax ni mu juddu ci président Sénégal yi après 60. nañu na faxe ba teg ay jalon yu bees yu mag yuy promouvoir la démocratie sénégalaise ndax man boog man gisaguma ko. Mm-hmm. de j'ai une audience. dans le cadre du CPC cadre permanent de concertation de l'opposition ñu ngi jógee kër Amath Dansokho man Moustapha Niass mu may dégg mhm. Amath Dansokho mhm. Tanor Dieng yàlla leen yàlla yërëm Madior Diouf mu may dégg mhm. euh, euh, mm, on bariwuñu woon matuwuñu woon neuf j'étais le plus jeune fekk ñu ñu wax partout partout si télé yeeg rajo yi ne on réclame une CENI boobu Sénat moo amoon. Mhm. on réclame une CENI ba ñuy jugee kër Danso dañ ne on dit la CENI mais li ñu soxla mooy ONEL renforcé. Mhm. ONEL bi fi newoon ay li may wax nii maa ngi koy doog a wax. ONEL renforcé lañu la ñu bëggoon. Mhm. parce que démocratie ay pas la yooyu yooyu franchir di évoluer. ça évolue. da ngay évoluer. léegi bi ñu ñëwee jàkkaarloo président Wade mu may dégg. check Sadou Fall yàlla na ko yàlla même moo toogoon si wetam président Wade je vous donne la Sénat dañoo xoolante Tanor ne ko waaw <laughs> c'était un pas de géant mm-hmm. et aujourd'hui am na yeneen ak yi président Abdou Diouf nangu woon na mm-hmm. teg onel mm-hmm. nangu woon na confier l'organisation des élections à un une personnalité neutre beneen beneen ministre nangu woon na nangu woon na tax dañuy jiite parti socialiste mhm. daal di confier parti bi Tanor Tanor Dieng mhm. président Wade def na lu mel noonu mhm. nag une nangu na day teg Sénat nangu na ni élection euh, euh, locale élection organisation élection dañ koy jële si pré si si ministère de l'intérieur jox ko Cheikh Gueye personnalité neutre donc acte yu mag yooyu laa bëgg président Macky Sall nga xamante ni suñu génération la mu dox si lu mel noonu pour bàyyi fi woy la démocratie ne jamais parfaite elle est en construction mais dañu bëgg moom mu dox si ay jéego yu mët pour que ñu apaiser comme ni ma ko waxee léegi sëñ bi loolu lay wax tout temps sëñ sëriñ yi nekk Sénégal yëpp sëñ Sidi Moxtaar Moxtaar sa la ne woon sëñ taxaa mii tey si loolu lay dox boo demee Tiwaawan xalif ba si loolu lay dox ñu ngi koy ziar mhm. bu baax a baax baax ñoom ñëpp même la clergé ci loolu la ñuy dox donc ku si ne na ku si ne. xalaatuloon ne démocratie bu njëkk fu mu nekk ni ci lu ñu soxla pour l'apaisement mooy euh, euh, mu bàyyi euh, société civile ak ñi nga xamante ne dañuy nekk di wax mu jël leen tëj leen dans des conditions yoo xamante ne mënuñu la mënuñu la ko kenn kenn kenn kenn kenn dañ ko ñaawlu loolu bokkul ci démocratie mooy ci li nga doon wax. noonu xam nga waruñu abuser si si mooy li ma wax rek si justice bi waruñu abuser. si si si di tëj nit ñi. alors liberté ñëw dafa am constitution moo ko wax. c'est garanti mais dafa am sëñ bi mënoon na ma bu fi ne woon daf may gën a gindi. Mm-hmm. man kaana yuxminu billaahi wal yawmil aaxiri fal yaxul xayran aw li yasmut boo gëmee yàlla gëm bés penc na nga wax lu baax wala nga noppi xam nga faa faa bi yéen dëkk bi dañu nawlante moo fi manqué. teggin teggin si wax ji. ci doxin bi si jëf bi. moo manqué Sénégal. politesse daf fi manqué. daf fi manqué. Mm. donc et ça on interpelle tout le monde ñun ñëpp suñu mm. ah je commence par moi-même. Mm-hmm. dañu war a xool nu ñuy waxe si penc mi. Mm-hmm. penc mi li nga fiy dégg léegi. Mm-hmm. dafa day day fat day yàq noonu. buzz rek. da ngay bëgg wax lu rek dafa yéeme et un état normal ne fonctionne pas comme ça c'est pourquoi on ne peut pas ne pas accepter qu'on qu'on arrête certains mm-hmm. on ne peut pas ne pas mm-hmm. l'accepter parce que euh, bu fekkee yow da nga taxaw ne lu ma neex wax mm-hmm. au nom de la liberté d'opinion da ngay assumer buñ la jàppee maintenant kenn waxul ne ñu abuser ci jàpp yi et aussi penc mi uh-huh. dëgg dëgg nañu defaraat mais prison yi nga xamante ne sur surpeuplé Euh, pour le le monde euh, ci ñi nga xamante quelles sont les solutions yi nga xamante ne dañ ko war a am pour le monde carcéral parce que tamit ni ñuy jëlee nit ñi mooy Guy Marius Sagna man nekkuma fi pour faral fii kenn mi dafa am yoo xamante ni dañ koy dund ñu koy gis ñu jël un père de famille jël la simmi la comme nu la sa ah yaay jure jël la teg li ci ay néeg yoo xamante ni munoo si def dara lekk yi nga jël ko yokk ko mu am ay nit sax yoo xamante ni nga ko yóbbul xaalis Euh, joxuñu ko ko c'était très difficile pour yóbbu leen ndékki lu nekk ñoo xamante ni ñu ngi ci situation yooyu ba pare ñu jël leen non seulement ñu kii leen mais yóbbu leen ci benn néeg boo xam ne dafa lëndëm mais dignité humaine dafa am ba pare lépp loo xamante ne yow yaa ngi koy def nit nit mais xalaatal yooyu yow buñ la ko defaloon du la du la neex dëgg la donc am na yenn yëf yoo xam ne dañ ko war a dépasser et je trouve que quel que soit le pas que la euh, que que qu'on puisse faire ci démocratie te xooluñu la dignité humaine pour man on a on aura rien fait. te defe naa ne loolu quand même. Euh, euh, promouvoir le, président war na euh, war na xoolaat yoolu parce que tamit bu fekkoon ne amuloon ay nit yi nga xamante ne dañu manqué woon xeex. pour que li euh, président Macky euh, Wade bëggoon def yi suñ mm. ko defuloon te moom mu bokkoon ci xeex mm. boobu kon lii du am dëgg la dëgg la d' abord il faut commencer donc il est trop jeune aussi pour faire certaines choses. condamnation yi abusive yi. voilà xam nga fii dañuy tëj nit si du n' yow sax mën nañu jékki-jékki jëw jël si ñu léegi donc vraiment dañu arrêté dañuy yàq. dund nit yu bari tey ñu bëree ngi prison peut-être defuñu dara. peut-être la ñu def eh. amoon nañ solution jubbanti leen. te lu nekk ñu nekk foofu am na ñu ñu fa fàtte. on peut parler du cas de Guy Marius Sagna c'est un cas. Mhm. mais il y n cas. n cas yoo xamante ni kenn xamu leen ñu ngi souffrir. Mhm. Euh, donc il faut d'abord condamnation yi. Mhm. ñu xool naka lay tëddee. ñu gën ko wàññi. lu ko jar ñu def ko lu ko jar parce prison dafa am une fonction éducative. Ah, mais bu fekkente ni buñ la fa yóbboo pour yàq la la fonction ah. essentielle et première de la prison est dévoyée beneen bi. mooy condition de vie de détention yi mm-hmm. de détention yi mais c'est à revoir d'abord euh, dañuy wax ni souvent nguur yi dañuy ragal la tabax ay prison yu bees ndax mm-hmm. day olof na naan mm-hmm. tabax yaa si jikko yaa koy inauguré ça s'impose ça s'impose dañ ko war a et loolu président au moins moom def na fi bu bu Sébikotane waaw mais dañoo si war a defar dañ si war a defar ba pare bàyyi condamnation abusive sinon ah, li am si prison yi mais musiba la et puis ay marche uh-huh. ay marche non autorisée marche soxlu autorisation dëgg dëgg dañ ko dañu informe euh, régime euh, d'informe uh-huh. fa la ñu nekk léegi euh, professeur malheureusement sa temps léegi mujjee bu dee da am benn question nga kii ko ko waaw man kay dama bëggoon rek dugg ci ci ci ci ci ville de Rufisque xam nga suñu amee occasion nekk koo xamante ne dafa jógee Rufisque am na ay mm-hmm. jamono dañ doon dégg ñuy wax xam nga dëkk bi dafa xatoon avant péage bi ñëpp xam nañu Tëngéej ni mu daan mel péage bi ñoo am lu bëri loo xamante ne daf ko wàññi waaye pour désenclaver euh, gox mi wàññi embouteillage yi ci tali bi dañ doon wax projet wu euh, liaison maritime entre Dakar ak Rufisque ba ñu bëri enthousiaste woon ci naan léegi bu ñuy demati Dakar xëy na dañuy jël bateau dem jaaree ci géej gi projet boobu fu mu toll. état ko initié. Mhm. ñun loolu lañ si am. Mhm. la ville de Rufisque loolu la si am état ko initié. kenn associé ci xanaa. on n'est pas informé benn. Euh, ñaar mooy le problème de la mobilité urbaine de façon mhm. globale à Rufisque. je ma koy nuyu au passage. nous souffrons le centre-ville de Rufisque et obstrué par les marchands. charrette yeeg mm-hmm. ña fay nekk. Mm-hmm. Euh, euh, Tëngéej je dis c'est la ville des chantiers inachevés par l'État. Mm-hmm. Promoville mu nga fa ba tey euh, retour cité Gabon bi yeneen route yi du gaaw a dem day durer cinq ans boo jëlee route nationale bi tey jii ñu ngi def deux fois deux voies man j'étais la quand Mbaye Jacques refusait qu'on en fasse deux fois deux voies. boobu dafa jàppoon ni. caractère urbain bu ville de Rufisque booy tukki di nga xam ni boulevard du lu ñuy def mu nekk autoroute. lu uh-huh. mel ni centre ville du uh-huh. autoroute moo fay jaar donc tey ñu ngi si loolu état état état bi. Uh-huh. nous souffrons mais nous demandons à l'État boo jëlee terre bi tey. xam nga dafay gën a accentuer Tëngéej mook Dakar ñoo xaw a ak Thiès ni leen tabaxe tabaxee la laprade dañu def le centre ville. concentrer fa toutes les réponses aux préoccupations des populations. Mm-hmm. Mm-hmm. ku xëy da nga fay converger boo demee Tëngéej suñu yaay yu lébu yi dañ naan maa ngi dem taax ya taax ya la ñuy wax. Mm-hmm. Eh, tey jii pour nga egg si taax yi da ngay am ay obstacles ñenn ñi dëkk ginnaaw péage yi premier obstacle péage deuxième obstacle bi teer bi. troisième obstacle bi tey mooy route nationale bi ñuy defar. donc on a saucissonné la ville de Rufisque de sorte que euh, accès bi jafe la trop. ay accident am na si. ay ay nit yu damm am na si lu nekk am na si te la ville n'est pas directement impliquée dans tous ces projets là mm-hmm. état bi mooy ñëw rek def et loolu ça pose encore mm-hmm. le problème de la décentralisation au Sénégal les rapports entre l'État et la collectivité boo jëlee ville de Dakar da ngay gis place l'indépendance bi ñu ko bëggee def dañ leen taxaw leen mm-hmm. même am même defar ay places publiques état bi nee na moo ngi koy yore amul fenn si àdduna bi même jël mbalit état du Sénégal nee moo koy yore. parce que bilan la boo xam ne dañ ko bëgg a def ci seen actif. même jël mbalit mi laa la dañ ko mhm. état bi da ko yëpp la ñu war a interroger. Mhm. malheureusement au Sénégal on ne parle plus qu'on agit. on le réforme. malheureusement voilà malheureusement. dafa am ñoo xam ne mhm. ils sont partisans du moindre effort. donc euh, mu ñëw rek ci dernière question bi violence euh, à l'université UCAD noo koy noo ko dundee. réew mi. Mm-hmm. ñun ñëpp ñoo ko bokk mais ñun askan wi fi nekk nii si jamono jii moomuñu ko mm-hmm. ñun ñii mm-hmm. suñu maam dañ fi newoon dem nañ ñoom ñëpp askanu Tëngéej su ma benn xarit philosophe jaase dañ si doon waxtaan lu yàgg bërki démb benn dimanche passé moomuñu ko ñun ndaw ñi ñun ñi fi nekk mag ndaw moomuñu réew mi dañuy dem yàlla yéex pour ñun ñëpp mais dañuy dem allah kulli ali dañ fi war a bàyyi dëkk réew boo xamante ni dafa am cosaan am taarix am ay baax-baax yu fi am il n'est pas normal il n'est pas acceptable ñuy dugal problème mu waaso problème mu tarixa problème mu clan problème mu chapelle si réew mi c'est il faut bannir ça et tous les hommes politiques sont interpellés mm-hmm. tous les hommes nous on a été à l'espace mm-hmm. universitaire politique man ak ñoom Baba Ndiaye actuel président conseil départemental bu Kaolack. Mhm. Papis Kaba Moussa Taye pour ñu gën a xam mhm. quoi. dañ doon ànd ak Fada mu nekk mhm. PDS. Fada oui muy bind affiche pour PDS duñ ko effacé de ñuy bind affiche pour PS. duñ ko effacé guddi gi dañuy wër Dakar gépp di waxtaan di chayitante. dans la paix. mais loolu est-ce que du politiciens yi ñooy indi loolu. waaw mais politiciens yi ñu nga fa woon. donc génération bii laay interpellé. waaw je vais aller mhm. xam nga période bi dañu am pétrole dañu am gaz zircon bi mu ngi fi am na tax beneen ressource minière bu ma dégg ni am na fi. Mhm. bu bu bu àdduna di wër. waaw dëkk yi am yooyu yëpp. dañ leen di taal xam nga fu ñuy jaar c'est affaire waaso. Mhm. c'est affaire tarixa si affaire yu garaaw lañ koy jaarale il faut que la jeune soit parce que loolu fi am nii ñun ñoo ko moom ak génération yi di ñëw. Mhm. bu ñu bu ñu dugal si lu ñuy diviser. Mhm. ndax moom euh, Ahmed Bachir Kounta moo ko daan wax yàlla na ko yàlla yërëm. amiin mu ne jàmm si la ñëpp xaj. Mhm. fitna xajul si kenn gis nga guerre yi moi écrit il a vingt ans que la guerre c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas à quatre-vingt-dix pour cent jeunes mm. au profit de gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas à cent adultes. en d'autres termes. ndax mhm. coow lu fi amoon barki dem ñi si dee. Mhm. ay xale lañ. Mhm. exclusivement kenn xama muy policiers yeeg yi doon xeex ñoom. policiers yi si gaañu. yi si blessé wu xamante wu ñoom ndaw yi si gaañu ak yi si blessé wu. ñi ñu koy defal au nom de ceux pour qui ils il ils se battent ñooñu xamante nañ te kenn du si gaañu. du ñu gaañu seen njaboot du gaañu. donc dama bëgg ndaw yi Sénégal ñu fàtt seen ñu fàttali seen bopp nii réew mii ñoom ñoo ko moom ressource yu am solo am na fi mhm. bu ñu kenn dugal ci division c'est un cri de cœur Fabienne oui. merci de m'avoir posé cette question mais véritablement na ndaw yi bàyyi xam nga fan lañ waroon tollu tey ñu jàngi les métiers du pétrole et j'en profite si vous me le permettez et on n'a pas de répertoire opérationnel des métiers et emplois Oui, on l'a fait dans le secteur de la décentralisation. On a référencé 123 mmh. métiers de ville. Sénégal amuñu loolu. Mm-hmm. Donc war nañu tey réfléchir man en tout cas je l'ai organisé sous la direction du maire de la ville de Rufisque. Mm-hmm. un séminaire sur le pétrole j'ai convié toute la nomenclature du pétrole tey jii mm-hmm. les métiers du pétrole quels sont les dérivés du pétrole tout ce qui se rapporte au pétrole et au gaz en termes de de de, de marketing en termes de produits de restauration. Mhm. tout ça li ñuy soxla. loolu la ndawi Sénégal sinon à défaut ah ban langue la ñu war a jàng la langue du pétrole c'est l'anglais mhm. nan la ñuy defee ba ñun suñu éducation. suñu formation projet ñu adapté ko au contexte actuel et futur mhm. du Sénégal sinon c'est des Nigériens ñeneen ñoo ñëw c'est des Nigériens c'est des mhm. Ghanéens mhm. qui seront kenn du leen mën a téye ay dégage yi frappe dégage euh, euh, Auchan kenn mënatu ko arrêté le monde est un village planétaire absolument on n'a qu'à s'organiser se préparer def une politique de formation professionnelle adaptée ndaw ñi ñu bàyyi leen di leen politique tigé préparer leen si défi futur yi absolument ñaax leen mhm. outillé leen ba lii am ëllëg ñu mën ko jëriñoo sinon coow rek moo fi am dara du am defe naa ne li nga wax noonu outillé leen ñu gën a ubbeeku gën dem jàng yeneen langue yi nga xam ne mais jàng sax euh, suñu langue bi nga xamante ne mooy wolof parce que euh, am na loo xamante ne lu bëri ñu bëri ñoo xamante ne duñ ko sax jéem a laaj donc euh, ñu on est obligé d'arrêter émission bi parce que le temps imparti bi ñu joxoon jeex na temps bi ñu joxoon jeex na xanaa nga tàggoo. Euh, ñi la doon seetaan ak sénégalais yi. jërëjëf mhm. Fabienne mhm. kontaan naa trop si invitation bi. si mhm. profité di nuyu sa xarit Pa Assane Seck. bilaay ndeysaan doomu Tëngéej doomu Sénégal bu baax nekk nekk suma xarit. un ami d'enfance. absolument boo xam nañ liggéey. moom waxam yëpp mooy. Sénégal nekk benn ñoo far. Mhm. loolu lay wax saay su ne Sénégal ñoo far lool laay tëje ñun ñëpp ñoo far ñi nekk si politique beeg ñi mhm. nekkul si politique bi mhm. ñi nekk si diine jéeg beneen diine ñi nekk si foo mënte ne ñi dëkk Casamance ñi dëkk Ndar ñun ñëpp ñoo far loolu laay tëjee ma leen gërëm di la sant d'accord merci beaucoup oui euh, merci euh, Fabienne di gërëm bu baax a baax suñuy euh, ñaari invité ak notamment mhm. le sunu expert en décentralisation bi di Amadou Sène Niang on a l'habitude de vous fatiguer ci yenn actualité yi au niveau de la rédaction donc merci pour cette disponibilité mhm. di jaajëfal bu baax baax les téléspectateurs de la 2STV clin d'œil à mes frères notamment à Lahat dig daje incha allah Fabienne samedi prochain incha allah su ko yàlla nammee voilà, donc, madame, remercier la Euh, toutes les personnes yi nga xamante ne dañuy jàpp ci émission bi tout ça mais euh, du pare nag euh, te du ma sargal sama yaay di ko souhaiter un joyeux anniversaire elle a eu 77 ans ah. aujourd'hui maman merci maman je te souhaite un joyeux anniversaire di la wax ne yaa gën ci yaay yi li ma mel yëpp ci bu bu ne baaxee ak bu bon yëpp bu fekkee ne bon na yooyu yaa ko def si man mais tu m'as appris à a édu à tu m'as à être éduqué à respecter mon prochain et à partager tout ce que j'ai avec les gens donc maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mu sa te souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui voilà ci portugaise laa ko koy waxee <laughs> voilà maman voilà et puis di remercier euh, spectateur tous les euh, euh spectateurs yu ñuy seetaan yi nga xamante ne dañuy safoo cest à Euh, laasana vraiment dañuy dañuy am ay euh, kii yu bëri yoo xamante ne nit ñi dañu dañu koy suggéré ci kii yi ñuy jéem aussi di def lu ñu mën pour euh, am ay profil yu mel ni yow ak ñeneen pour ñu def donc samedi prochain je peux le kii Moundiaye Cissé sera fera partie de de nos invités en première heure à partir de samedi prochain quoi donc moom mooy ñëw 11h incha allah désormais noonu la ñuy kii saa yi suñu paree euh, samedi. Euh, damay annoncer les autres invités. parce que voilà donc liggéey bi dafa war a évoluer. mu ngi sali. voilà ak toute la société civile pour waxtaan si jàmbi réew mi. absolument moom it ñu koy sargal di suñu frère la suñu xarit la. absolument man itam sama xarit la yàlla na yàlla def ndam si. voilà ah, Sénégal bi ñu ñëpp ñoo ko bokk. voilà merci.